beneen mbégte di janok yéen tolluwaay tey moom moo ñëwaat tey altine tomb ak tamit ñu jugee si benn mbokk yi ñu ngi jégal bu baax a baax si dog-dog boobu ñu nuyu leen bu baax baax tey jii moom moo ñëwaat altine boo xam ne dañoo jógee si ñaari fan yoo xam ne li si amoon tukkee si si wàllum xibaar bëri woon na lool li si mel ni euh, rassemblement bu mag bi nga xam te ni amoon na démb si place de la nation ngir euh, xeex lépp loo xam ne dafa jëm si borom ñaari tur yi naka noonu tamit euh, samedi gisoon neen le MDD mi ngi woon sa Bignona naka noonu tamit si ay bés bi si déndum Afrique ña ngi woon fële si si wàllum koom ngir suqali déndum Afrique xam dina si waxtaan ak suñuy gan ñu si dalal Thierno Diop nekk journaliste waaye tamit bu nar a euh, bokk plateau bi Pape Matar Diallo nekk bindikat nekk itamit koo xam ne ni chroniqueur lu ñu xàmmee ko bu baax a baax Sen TV am nañ mbégte dalal leen bu baax a baax Pape Matar ma nuyu la bàyyi la nga nuyoon teg ñi nga xam te ñoom ñu teew waaw Mouhamed di la di la fay di nuyu aussi Thierno Diop di nuyu Sénégal yi nga xamante ni dañuy seetaan Seneweb mm-hmm. di rafetlu liggéey bi di Euh, ci seen investissement bi. Mhm. mais aussi euh, si seen taxawaay bi nga xamante ni ngi koy def ci réew mi. jërëjëf Pape Matar euh, Thierno Diop journaliste maa lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ Diallo véritablement di nuyu bépp téléspectateur u Seneweb mooy nuyu tamit sëñ Pape Matar nga xam ne macha allah chroniqueur bu mag la. à travers sa production éditoriale il est connu ak surtout ses interventions su l' actualité nationale voire internationale mhm. nous sommes très ravis de partager ce plateau jërëjëf euh, Thierno Diop juñ naa ko sànq démb amoon na rassemblement bu mag bu amoon place de la nation ngir wàllum euh, borom ñaari tur yi fii nii si Sénégal Pape Matar euh, initiative boobu jógee si collectif wala bokk ànd sàmm jikko yi di ay société civile mën nañ ko waxee noonu am tam ay woy politique yoo xam ne teewee nañ ko avec le recul ban jàngal lañ si a am dans le contexte actuel. waaw jàngat bi njëkk bi si am rek mooy di tax taxawaay bi nga xamante ni ay sénégalais am foi. am gëm-gëm ni am na ay dérives yoo xamante ni ñu ngi koy seetlu ci yenn bërëb ci àdduna bi te ñi njort ni que dafa mel ni dafa commencé ak Sénégal donc ñoom bu ñu ñëwee taxaw ni dañuy jouer rôle d'alerte boobu man mi nga xamante ni damay sénégalais am lu ma gëm aussi du ma def lu rafetlu ko beneen mbir mi aussi dafay wane quelque part que ñun dañu war a dem ci li nga xamante ne mooy lu leer parce que tey euh, Mohamed ñëpp xam nañu ni suñu loi bi nga xamante ni ci affaire homosexualité loi bi dafa équivoque c'est-à-dire dafay prêter à confusion nit ki mën na ko interpréter nu mu la neexee parce que boo xoolee euh, ni ñu ko bindee noonu explicitement terewul homosexualité acte contre nature lay wax te acte contre nature yaakaaruñu nit loo xamante nit mën na koo gis ba koy ba koy ba koy ba koy tere donc je crois que tey bu amee ay yoo xamante ni jug nañu ni nañu war a fexe ba criminaliser li nga xamante mooy homosexualité mais loolu dañ koy rafetlu leneen li nag tey waroon na doon position état du Sénégal te li ma siy ñaaw li leen kase la mooy gisuma fa ministre gisuma fa député gisuma fi ñu jege président Macky Sall de deux choses l'une soit ñoom dañu nekk pour l'homosexualité wala ñoom peut-être bu ñuy far dañuy far ba fàtte li nga xamante ni mooy intérêt général te yaakaar naa ne homosexualité mbir boo xamante ni question bu générale la bu Sénégalais yëpp waroon mën a bokk benn position mais bu demee ba ñoo xamante ni dañuy nekk ci coté président bi ba initiateur bi bu tuddee Mouhamed Diallo dañuy naan comme kii opposant la wala njoxtu nañ ni société civile la yoo xamante ni doy waar mais je crois que tey ñëpp waroon nañu ñu wax dëgg la ci ñun dañuy dem juma dañuy dem Touba dañuy dem Tiwaan bu nekkee loolu ñuy wane di ko affiché sur la place publique loolu dëgg la si ñun mais kenn waruñu woon jiitu ci fi nga xamante ni mooy monument boobu mais malheureusement pour des calculs politiciens malheureusement parce que parfois dañuy am cer euh, plus euh, pusillanimité qui qui fait que ñoom nanguwuñu sax di dem di afficher yenn position yoo xamante ni ñëpp ko waroon posi ñëpp ko waroon afficher président Macky Sall sax waroon na fa mën a ne moom nee na il est contre l'homosexualité donc ñëpp ñi nga xamante ne ay jullit nañu di ay doomu jullit wala ay chrétien gëm li nga xamante ne dañ ko dañ ko dañ koo doon waroon nañ fa nekk donc daal vraiment dama koy rafetlu lu ma siy ñaawlu rek mooy loolu li nga xamante ne mooy euh, absence su ñenn ñi nga xamante ne ay dignitaire nañ ak ay notabilité ci dëkk bi justement absence su euh, ñi ni jàppee ne ñoom ñooy jiite réew mi euh, si contexte géopolitique bi nga xamante ni si leen nekk jamono ji nan lañ ko mën a comprendre Thierno Diop jërëjëf sëñ bi Diallo non dans le sens de Pape Matar li mu wax euh, loolu xam nga état euh, dafa am nation am nation souvent mooy li gën a renvoyé ci connotation maanaam communauté bi maanaam ñun tey li ñu doon suñuy aada ak suñuy këtum loolu lépp noonu ak suñuy diine suñuy gëm-gëm loolu mooy nation bi léegi état dafa nekk support juridique gu nation loolu nag mooy indi après droit mooy dem ba si yàgg indi sax ay constitution du noonu léegi nag bu ñu xoolee ñun dafa am benn césure bu am ci indépendance maanaam ñun xam nga dañoo moomoon ñoom tubaab yi ba daanaka yore yat bi daanaka di ñu xam Senghor bi muy ñëw dafay damay tekki mbuumu njaam 1951 dis loolu mooy slogan mais ab 60 bi ñu fa egg tekkiwuñ mbuumu njaam xamul tax constitution France lañ jël bu cinquième république bi ñun boobu rek lañ jël après adopté ko mais ci constitution boobu nag dama lay renvoyer ci benn livre bu tudd histoire secrète de la cinquième république franc-maçon yi nekk France dañoon inquiété wu ci changement de constitution bi de la quatrième à la cinquième république mais après dañu leen rassuré ne leen pourtant y a nos phrases dans cette constitution et malheureusement constitution africaine yu bëri elles sont inspirées de cette constitution de la cinquième république française kon xam nga loolu dafay andi problème parce que tey rek moo tax lu bëri li ñuy bañ loo xam ne dafa méngoo ak suñuy coutume ak yooyu après ñun dafay andi lënti lënti parce que leeraluñu ko ci question yu bëri lu jëm ci donc ci ay affaire góor jigéen affaire daara yi par exemple xam nga ku tedd ki sëyu sëñ sëñ Muntaxa boo fàttali ko affaire daara yi bi mu posé may xale bi ñu kii woon noonu Louga am na benn phrase bu mu wax lii dinañ fexe ba question bii duñ ko dugalee assemblée booba tey gisuma débat boobu continuer te pourtant yu mel noonu affaire avortement ak ñooñu dañ ko war a dugal ci suñu constition yi réglé ko parce que même France bi ñuy wax noonu dans les années soixante-dix problème dafa nekk débat mais Valéry Giscard d'Estaing moom moo ko dugal après weñ loxo dugal ko léegi nag affaire góor jigéen bii nii ñoom dugal nañu affaire mariage pour tous ñun fan lañ jëm parce que il ne suffit pas de parler il faut une cohérence entre ce qu'on et ce fait mais ci ñun ci suñu histoire suñu président ñun nañ ñu wax waxet ne lii du fi am gis nga Abdou Diouf mooy dévaluation franc CFA du fi mës am mais quand cette réalité s'est imposée à lui dévaluation dafa am donc lii tamit li ñu jaaxal li ñu jaaxal comme ni mu ko waxee la lu tax mënuñu imposer des verrous des ay verrouillage mu am ci de manière définitive Ouganda loolu fa am Museveni am na dëkk yoo xam ne booy waxu góor jigéen a jàpp tëj la ci kaso bi. donc xam nga loolu le président Macky Sall mais bu nekkee ne ñëw foon ñañam ñëw ñu foon moom il a toujours été clair sur la question euh, si kanam euh, ku mel ni Obama ne woon na pare guñu si kanam euh, ku mel ni Trudeau premier ministre Canada yi tamit bi fi ñëwee dafa gën a ferme wax ne Sénégal parewul pour def lu mel noonu. xam nga boo nee pare guñu dafa am notion de li ñaan progressif. Hmm. ci temps ci a donc loolu dafa leerul dañ ci exprimer wul ñoom de manière claire ne fii affaire góor jigéen du fi am phrase phrase yooyu xaar ñu wax ko parce que attention am ay relance géopolitique administration américaine bu bees bii nii ak Joe Biden kooku li Obama fi mu bàyyi woon affaire yi ñëw continuer loolu mooy mission fondamentale te leeral na ko à travers un de ses conseils képp kuy joxati ndimbal américain yi affaire góor jigéen bii di ko dagan loolu moo nekk ci seen constitution bi ñoom loolu da la ñuy doxee tey nii loolu. seen administration te loolu nag xam nga dafa am ay relance. ay implications géopolitiques yu bëri. économique parce que bu ñu waxee ne même militaire tout oui wey lépp na mooy ku ci collaboré rek affaire góor jigéen bii nii il faut nga leeral ko nga def ci ay kii. parce que kii Donald Trump bi mu faloo moom moo dëggoon bal bi xam nga Obama ñoo ne fii ne nañ ko def wax dëgg yàlla foofu ci gërëm taxawaay président waaye comme France li mu ci sërëxal moo tax waxoon daf fi mos a am dana pareeguñu. ndax du duñu mës a pare nag loolu mooy débat bi tey nii. voilà mais Pape Matar yaa ngi wax ne gisuñu fa ay ñooñu président Macky waaye gis nañ fa waa opposition bi Ousmane Sonko mi ngi fa woon Mamadou Lamine Diallo mi ngi fa ku mel ni Cheikh Bamba Dièye moom euh, pétition bi moom xaatim na ko. Mhm. Euh, présence ñooñu tamit est-ce que na lañ ko mën a jàngatee ak tamit politiquement est-ce que ce n'est pas un peu risqué pour ñoom ñoo xam ne dañuy daagaan waaw mais xam nga bu ñu demee ba léegi euh, ay position yoo xamante ni ñëpp ko war a am parce que encore une fois dafa am euh, suñu particularité réew bi réew Sëñ Touba El Hadj Malick ak yooyu un pays 100 pour cent religieux ñii di ay jullit ñii di ay chrétiens donc lool loolu mooy suñu particularité donc suñu réew boobu noonu tey jii bu nekkee da am ay position yoo xamante ni dafay nekk en cohérence ak particularité réew mi buy poser problème wala ñu ngi si xalaat ay ay ay euh, ay répression ak yenn mbir yi ça ça commence vraiment à à à, à vraiment à, à peur en fait parce que tey man yaakaar naa ne li waroon doon lu waroon ragal lool nit ñi mooy le contraire cest dire nit ki bu affiché wul position publique bi ragal ay représailles mhm. mais pas que yow nga affiché position publique bi ngay xaar si ëllëg ñu lay jox ay représailles ñu lay def ay représailles parce que en fait réew bi euh, Mouhamed bu nekkee ay jullit nañu euh, Serigne Touba nekk fi Alaaji Maalik nekk ak ñeneen ak ñeneen ay nit ñu baax yow nga taxaw ni ñoom li nga xamante ni moo nekkoon seen taxawaay ci taxawaay boobu ngay taxaw boo ciy xalaat leneen lu dul ay retombées yu positif mais vraiment war nañu mën a xalaataat wala xoolaat suñu bopp xam nga mbir bi lu ci tax mu gën a doy waar fexe nañu ba imposer ñu question de genre ñun ñu accepté ko te kenn waxu ci suñu permis ñu ngi ciy fekk genre inquiététul kenn ñu am ministère boo xamante ni genre genre lan lay signifier mhm. ñu dem ba bu amul woon wala bu ñu tetee la vigilance des euh, syndicats yi nga xamante ne ñoo nekk ci corps enseignant bi naroon nañ dugal éducation sexuelle ci suñu suñu suñu suñu école yi fan yële passé lan lañ doon commencé di joxe ay gadget yoo xamante ni ay góor a jigéen ñiy fóonante wala jigéen a jigéen ñiy fóonante c'est-à-dire inconsciemment ñi ngi ñuy sax di ñuy gëmloo ni que góor jigéen de si seen culture la bokk wax ngeen ko mën a accepter donc ñoom ngi préparé politique yi mais ñi ngi préparé aussi peuple bi parce que da ngay xool déjà ci seen série yi lan la ñuy wane série boo gis léegi di nga ci fekk au minimum kenn koo xamante ne soit day promouvoir homosexualité wala lesbianisme c'est-à-dire ñooñu ñuy seetaan ñi koy def ba léegi day dem ba yow mi nga xamante ni yaay naan sax affaire goo jigéen waxtu fi am yow yaay doon cible bi mm-hmm. da ngay gis tey jii ñu ni jàpp nañ benn góor jigéen ñu ko doon duma nga dem ci commentaire yi tu verras des gens dire que ni bàyyi leen ko lu ko neex lay def sa vie ça appartient lu ko neex lay def bu ko neexee def ay choix am yoo xamante dem nañu ba commencé duñu li loolu l'inacceptable donc loolu vraiment bu nekkee yow dangay ngay te politique bi war na mën a doon sax lu ñuy teg de côté nga fàttali ko ni avant ngay doon homme politique da nekk un citoyen nga fàttali nga am une foi. mais bu nekkee dañu si bëri si ñoom bu ñu waree nekk candidat si ambassade yenn réew yi la dem wax fa lan yenn réew mi euh, xalaat nañ tam bu ñu faloo am accompagnement par exemple union européenne wala nations unies am nu mu leen gungee est-ce que nekkul tam foofu noonu loolu moo leen di xaw a tënk. waaw mais xam

fait gën xalaat ni wax nañu mën a demal suñu bopp te effectivement wax nañu mën a demal suñu bopp mais xool nan nañuy demalee suñu bopp ci ay base ak ay conditions yoo xamante ni yu leer la gis nga Mohamed am na yoo xamante ni jarut a négocier ñoom nee nañ la voile bokkul ci seen liberté mm-hmm. alors que ñoom ñoo ñuy wax ni nit ki mm-hmm. am na sañ-sañu ba def taatu neen di dox mm-hmm. mais munoo sol sol burka munoo ko def munoo sol sol voile intégral munoo sax taxaw dinaan da ngay nodd ci medd alors que ñoom ñooñu ni góor jigéen am nañ droit def lu leen neex donc ñoom am nañ benn nit koo xamante ni accepté nañ ko dérive yu ne mais beneen nit ki lépp lu mu bëgg def ñun ko doo ko fi defee seen réew ñoom dañ ko fay defee nee nañ la léegi boo demee ba am sax polygamie dañ lay interdire nga séjourné fu mel ni France donc yooyu noonu bu amee ñoom seen i dëkk loolu bokk na sax ci mission yi gën a rëy yi ni assigné Marlène Schiappa mi nga xam te ni moom mooy euh, secrétaire d'état bi ñu dénk wàllum citoyenneté ak yooyu ngi def seen dëkk lu leen neex ñu nangul leen ko ñun lan moo ñu tere en retour aussi ñun ñu def lu ñu neex en relation ak li nga xamante ne moom mooy en conformité ak li nga xamante ne mooy suñu gëm-gëm ak suñu conviction donc je crois que tey jii vraiment war nañu mën a toog xoolaat na nañuy fexe ba batiiraat benn Sénégal boo xamante ni dafay nekk Sénégal valeurs yi nga xamante ni moo taxoon ñu doon wax Sénégal parce que Sénégal bañ ko doon wax bu njëkk ba nekkul woon ay or nekkul woon ay richesse mais dafa amoon une particularité boo xamante ni dañ ko amoon mooy Euh, hospitalité bu ñu doon wax mooy euh, conviction yi nga xamante dafa doon nekk si nit ku nekk mooy jom mooy fit mooy yi nga xamante ni tey moo taxoon ñu naan Sénégal mais Sénégal boobu tey jii boo xoolee dafay commencer di dem ci ay dérives yoo xamante ni mais homme politique am nañ si responsabilité mais ñun aussi am nañ si responsabilité donc je crois que ni li nga xamante ni sàmm jikko yi te seen tour aussi ñëw euh, ci contexte bi li nga xamante ni moom mooy contexte bi ñuy wax waxu réseaux sociaux yeeg dérives yooyu yëpp sàmm jikko yi tey dafa jot. ñu jàppale leen parce que ñu ñëpp war a toog xoolaat Sénégal bi ñu ni ah, vraiment il y a des choses vraiment yoo xamante ni c'est inacceptable waruñu ko mën a accepter te vraiment war nañu mën a jàll sax au-delà de dénonciation mais poser ay actes yoo xamante ni dafay dem dans ce sens de sàmm suñu jikko parce que jikko yi commencé na pervertir bu demee ba xalif général yi di signer ay pétitions man mosuma ko gis au Sénégal Macky Sall sax dem na fa pour affaire parrainage yu expliqué mais mosuñu am signature donc ñoom bu ñuy demee ba signé ni lii dañ see ànd je crois que ni loolu rek waroon na tax ba président de la République en exercice ñeneen ñi nga xamante ne dañu aspirer diriger ce pays ñoom ñoo fa waroon njëkk taxaw parce que munoo ni da ngay jiite réew boo xamante ni président moom mooy nekk ci kaw xalif bi xalif bi ni la nii de lii ñii di def dem see ànd parce que dañ war a sàmm jikko yi yow ngay toog fële naan da ngay xalaat ay représailles bu askan ànd léegi yow jox la doole jox la moyen waratoo xalaat wala ragal benn représentant. justement am na benn phrase bu euh, Oustaz Aliou Sall wax démb ñu partagé ko largement mu jàpp ne Sénégal bu ñuy tànn ñi war a jiite réew mi dana tànn si homme politique yan nekkoon si sa sa tribune ba loolu yi tamit bu ñu koy méngaleeg tey jii euh, nan lañ koy mën a jàppee. waaw moom laa wax xam nga li ma wax sànq mooy la cité idéale les choses comme elles doivent être ni ñu war a mel quoi en principe mais nag la cité réelle dafay wute ak loolu. maam réalité yi ngay am en face dafay wute ak loolu parce que gis nga picc ci avion dama koy faral di wax junni picc ci avion seen naaw amul njariñ parce que fi avion bi jëm rek la picc yi jëm lii yëpp ñii dafa am lu muy renvoyé xam nga sànq maa ko wax ni ñu duggee ci indépendance la ñu réglé wul ñun nous sommes balkanisés de petits états y a un problème de souveraineté effective qui se parce que boo nee souveraineté militaire monétaire mais sur les mœurs aussi li Pape Matar wax tey pour ñu am exercer quelque souveraineté sur nos mœurs faudrait ñu am d' abord souveraineté problème souveraineté boobu nag moo posé wu. léegi na lañ ko mën a parce que souveraineté ko mën a déggee. mooy mënal sa bopp Sénégal fi mu toll jamono ji nii boo faloon Mamadou Lamine Diallo comme mu ngi foon ma jël exemple si moom. wala nga fal Sonko wala nga fal Cheikh Bamba Dièye. parce que ñoom fës nañ si. boo leen faloon li ñu am tey jii moom la ñu am suba. bu nekkee ne changé bu théorie yi nekkee Mali ñuy def benn chantage ñoom parce que ñoom ñooy digg bi mais loolu lan lañ koy marchandé en contrepartie de ce soutien qu'il nous apporte il marchande ça avec quoi parfois loolu mooy question yi c'est plus complexe que ni ko nit ñi di yaakaaree xam nga te gis nga ñoom seen lépp dafa ànd boo demee union européenne dañu naan charte de l'union européenne affaire homosexualité bi daf ci nekk ak d'autres paramètres dañ koy prédéfinir ne voilà comment on envisage nos relations avec l'Afrique lii ak lii ak lii da koy dugal moo tax nag mooy poser wu question confronté au réel ndax même ñi nga xam ne dañuy signé nii après il ne faut pas se mais du tee dañ leen di encouragé parce que xam nga toujours nit ci principe nga mën a taxaw du noonu. bien vrai rek nag principe bi am na ay risques mais risque yooyu toujours ñu koy calculer tam parce que souvent moo tax man après day poser question ci réticence su politiciens yi ci yenn question yi lu jëm ci ay franc-maçonnerie lu jëm ci ay homosexualité. parfois loolu moo koy expliqué xam nga Sénégal ñun dañuy naan par exemple sax dañuy renvoyé bu ñu ne franc-maçon rek ñu def ne am détail ñi fi mës a jiite réew mi forcément loolu lañ non parce que bu gisee ma évoqué franc-maçon dafa xaw a am corrélation ak affaire góor jigéen quoi lépp affaire mœurs la le président Senghor ne épouse première Ginette Eboué franc la mais moom mosuñ il est établi que mosu ko doom mais on les tolère dama gis nag affaire góor jigéen bi dafa mel noonu la demee quoi on les tolère comme ni nga ko waxee sànq la duñ ko ci loi yi dafa mel ni dañ koy tere mais dañuy créer ay ministère genre parce que même damay wax sax propagande bi leen di defal nii dafa ëpp a force de parler de góor jigéen bu yàggee dafay doon un fait banal te ñoom loolu lépp ci yooyu dañuy imposer seen seen seen agenda damay jox benn exemple am na tubaab bu tudd Jean-Luc Romero en 2011 c'est un socialiste français mais militant gay de Gay Pride mu ne tudd benn homme politique bu Sénégal ci opposition boobu. ne bu ñu faloo kooku dina dimbale dina dimbale ñu daganal góor jigéen. kan la woon. bëgg ma mën kii ko xam nga bëgg ma personnaliser débat quoi. bëgg na personnaliser mais mi ngi si bi wala newul si bi. actuellement sax euh, mi ngi def nii mi figg mi raisin quoi mais opposition radicale la bokkoon mais temps yi bokk a mhm. mhm. mhm. naa ñu ko traité communiqué bu laconique nee na lii bokk ma ci rek jeex na quoi moo taxoon bëgguma ko tugg comme démentiroon na quoi mais Jean-Luc Romero boobu après j'ai appris que depuis 2012 ngi dugg Sénégal di dama ko ñëw day mbubboo ay xeex sida ak affaire demee noonu am ko tudd xaw ma Jamil Bangoura kooku day jokkoog fii nii dugg ci Sénégal waa Kimi Seba nga xam ne militant panafricaniste la di xeexal askan yeeg yooyu bu ñëwee aéroport ñu refilé ko jàppee ko ko subversif kooku ñu koy bàyyi muy dugg suñu dëkk bi. nga jël Jacques Lang l'ancien ministre socialiste français il était annoncé au meeting de clôture de Macky Sall en 2012 après nit ñi xaw a yuuxu nii xam nga ñu xam ne xaw na sensé parce que waa PDS sax loolu ñu defoon seen angle d'attaque mu reculé mais Jacques Lang boobu tey mi ngi ñëw Sénégal ñu koy recevoir xam nga loolu lépp dafay lënti xel comme ni mu ko waxee nii quoi loolu dafay tee xel parce que dafa mel ni on les tolère loolu lay joxe parce état dafa waroon porter combat boobu ci ci nag lu idéal quoi mais seeni réserve parfois moom laa la sànq je le comprends parce que dafa bëri ay ramifications dafa bëri ay paramètres te comme surtout temps état administration Joe Biden bu Amérique ñoom nee nañ léegi li li définir seen relation ak état mooy affaire wu góor jigéen bii nii mais de manière générale tam gis nga problème de fond bi mooy problème bi ñu nekk en tant que état des micro états impuissants balkanisés dans les années 40 ñi politique souvent l'adjectif africain day nekk seen parti rassemblement démocratique africain mhm. bloc démocratique africain parti africain de l'indépendance bàyyi cinquante yi mhm. parce que la revendication principale était indépendantiste corrélée à la à la à la revendication de de souveraineté xam nga parce que tey mënoo wax indépendance te liy def souveraineté mooy doole mooy puissance réglé woo ko il faut Afrique ànd di waxandoo di xàcceendoo di dóorandoo parce que yi ñuy wax ne yëpp comme ni ma la ko waxee devant des problèmes da ngay tam quoi boo dee chef d'état j'ai un problème sécuritaire au Mali ñii kat ne balaa ñu may jàppale il faut ma def lii nii lan laa war a def loolu tam ay questions yi ñu posé la ci affaire monnaie kon président Macky Sall fu mu ay équilibre non mais ay équilibre dañuy gérer doo leen buntu xataal fii bañee mer waaye tam doo leen doo leen fii ba ñëw ça charrie l'impérialisme charrie une ontologie dafa ànd c'est un tout dañuy dominer ci monnaie dominer ci lépp ba ci mërs seen jikko yu bon ñu tam dañu koy jéem a wàll force te France noonu lay doxalee ak ñun ah seen jikko yu bon ñoom force dañu koy jéem a wàll fii on résiste nag mais résistance boobu jusqu'à quand parce que waa ji nee na pare guñu ndax dañoo nekk ci benn conditionnement psychologique di dis distiller ay éléments de langage ba nit ñi miin wàllum góor jigéen nga nga Sénégal góor jigéen itam di marche puissant qu'ils sont xeex ak nit ñi ci mbedd yi c'est possible yooyu yëpp bu ko exclure parce que comme ñi ngi xeex ci ay kayit bu ko exclure ñoom tam bu leen neexee parce que yenn dëkk yi loolu lañ doon def gars yi dañuy ñoom tam ñuy marche am seen i moyens après état invoqué raison de stabilité ak yooyu noonu après daganul ko ñu dañuy respecté seen droit mhm. mais Sénégal daal xaw ma lan la mais ñun moom teg nañu bët dafa mel ni Sénégal verrou bu war a sauté la ci affaire combat homosexuel yi loolu jàpp ko beneen affaire drapeau Sénégal bi ñuy wootee wane Israël man maa ko bon bëgguma ko di revendiquer parce que c'était un travail collégial bien sûr xëy na si sama xal yi mën a jaar ñu bind ko mais am na ku ma jox information bi en 2018 ba may Dakar ak vous voyez mais après kenn waxu ci dara drapeau Sénégal lañu def ci défilé Gay Pride bi te ñu ko def dernier aljuma ci weeru kooru 2018 bi xam nga loolu après. loolu c'était un signal. c'était un signal fort. te bëri na ay signal la cible c'est le Sénégal. no déggoo li ma la wax. fii wala mooy Sénégal mun nuy jàppale loolu la si tekk maanaam. cible bi Sénégal la. wala Sénégal mun nuy jàppale wala ndax verrou ba fa la nekk. foofu xam nga fii Dakar. loolu Dakar porte Dakar ëpp de projection lépp la ci économie ak lépp. franc-maçonnerie fii la duggee Sénégal Saint-Louis 1781 première loge maçonnique en Afrique fii la Sénégal bii la déparé vous voyez tey xëy na bëreetu fii yeneen dëkk yi la gën a bëri mais fii la déparé loolu tam bu ñu fàtte réalité boobu quoi. Sénégal dafa nekk benn symbole topographique. dafa am chaque fois par Matar luy ñëw muy souveraineté souveraineté souveraineté mu mel ni si wàllum koom day am jeexital si li ñu doon wax sànq. ay bés bi ñu génn ay njiitu euh, dem Afrique wala boog ay njiitu réew Afrique ñu ngi woon fële Paris président Macky Sall bokkoon si ñu doon waxtaan si nan la ñu mën a suqali euh, Afrique waaye itam jëm si wàllum koom euh, waaye itam si ay koppar yoo xam ko koy lebal si wàllum dette publique bi yooyu yëpp tamit waxoon nañ si mu mel ni kon ba tey ji jëng bi jógee ko fi nan la mën a jàngatee tamit daje boobu nga xam ne amoon na ca Paris si contexte bi ñu nekk muy contexte difficile de Covid 19. waaw xam tey 2021 ay njiitu réew nasaraan ñoo di toog di xalaatal Afrique nan la ñuy fexe ba suqaliku tey objectivement bu ñuy xool rek Europe moo gën a impacté ñoo ëpp ay problème ñoo ñu ëpp ay mort ñooñu ëpp ay difficulté donc ñoom seen problème kay wax na leen mën a doy ba ñuy lijjanti Afrique leen nan lañ leen wuta ay solution gis nga parenthèse bu ndaw la rek par rapport ak li ñu doon wax léegi c'est-à-dire laame ki doon c'est laame ki dirige nee nañ la ku la aal ay gët mooy xool nu mu ko en fait xoolal tey ngi nekk di liggéey amul benn série bu ñu jëlul benn xale bu jigéen boo xamante ni elle est autonome mhm. financièrement mhm. elle indépendante commencé di naan xale yu góor ñi amuñu benn njëriñ mhm. amul benn série ci Sénégal bu ñu dul caricaturer xale yu góor ñi ay doxaankat nañu ay traitre nañu ay defkat lu bon nañu ak defkatu ñaawteef léegi bu ñu demee ba créer loolu loolu mooy lan góor ñi na leen jigéen ñi abandonné jigéen bu ñu leen abandonné nañu dund ñoom kase góor ñi bu ñu gisatul jigéen bu ñu dund mais dañuy obligé say seen biir mais ñëpp ñu ngi koy seetaan ci télé yi amul benn série boo seetaan boo fekkul ku góor ki benn personne boo xamante ne bu infidèle la day découché di def lu ko neex di trahir di def leneen ak leneen à côté xale bu jigéen bi moom femme bu autonome la bu indépendante mi dund moom kase ci appartement am te xalaatul sëy boo ko waxee sëy mun la góoñ dañ lay taala léegi loolu lan la ñuy def suñu sœurs yi lan la ñuy nekk di leen installé seen bopp ñu ngi leen di commencé di leen naan apprenez à vivre avec sans sans sans sans un mec boo leen ko mënee dund li après loolu lay indi ñu ngi dem ci dérive yoo xamante ne mooy loolu pour delluwaat ci économie bi lii ñuy wax nii Mouhamed man Sénégal mooy réew boo xamante ni man daf may jaax réew bu am 700 kilomètres de côte sa géej amoon plus de 300 espèces yow nga am ñun la population boo xamante ni ñu am 35 ans dépassé nañ 70 pour cent yow nga am or nga am ja euh, nga am nga am pétrole nga am euh, zircon nga am gaz nga am des terres cultivables des mets valides mais Sénégal boobu lan lay soxla extérieur bu nekkee da nga soxla li nga xamante ne mooy ay carburant ak yooyu am nga hydrocarbure am nga am nga am nga am nga am nga euh, am nga pétrole bu nekkee da nga soxla pour électricité ak yooyu am nga soleil bu nekkee da nga soxla pour bay mais am nga suuf am nga ndox am nga trois fleuves mais réew boobu lan lay dem di wuti ji bitim réew lan la ñuy dem tey jii di xalaat ni Sénégal dafa war a continuer di dépendre ci générosité bienfaiteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk bitim alors que ñëpp xam nañ en retour am na leneen loo xamante dañ leen koy jox donc je crois que tey Afrique <coughs> li ñu soxla nekkatul ñu leen di wan ay yoon comme ni ñu ko doon wane si jamonoy Abdou Diouf deen naan ay plan a structurel la yu kenn xamul tey dañu waroon dem ci benn autonomie financière mm-hmm. tey jii dañu waroon fexe ba lépp lu ñuy tabax suñu économie ñu tabax ko mais en fonction de nos réalités ñun dañu jógee bitim réew jël nañu ay termes importé ko imposé ñu ko ni ñu développement teg seeni critères ni critères yi boo ci nekkee yaa ngi ci développement mais kañ la Sénégal di toog di naan critères yi nekkul ay critères yu objectifs remettre en cause ces critères pourquoi forcément nit ki nga xamante ne dañ koy tuddee entre guillemets nit ku moderne mooy nit koo xamante ne dafay sol yére yére yére yére yi nga xamante ne nasaraan yee koy sol pourquoi forcément économie bi nga xamante ne dañuy naan économie bi mooy informel lan moo tax mu nekk informel ñu ni non parce que fii 7 pour cent de des unités industrielles yooyu la. c' est ça Sénégal ngay dund ñun la way Sénégal économie parce que boo déggee seen chiffre ñu la way Sénégal bokk na taux euh, de chômage euh, de chômage yu gën a élevé mais effectivement ñoom lu ñuy jàppee liggéey mooy contrat fàtte nañu ni taximan bii di daw Sénégal il sont au nombre de cinquante mille voire plus taximan yooyu noonu kenn amu ci contractuel et pourtant c' pas des chômeurs nga jël ñi nga xamante ni ñoom ñooy coxeurs yi ñi ngi liggéey amuñu contrat te ñoom bu ñu leen di comptabiliser dañ leen di comptabiliser ñi nga xamante ay chômeurs lañ donc je crois que ni tey dafa war a jot Afrique ak Sénégal ñu jéem a xoolaat nan la ñuy fexe ba su suñu économie bii nga xamante ni ñoom dañ koo jàppee di ko caricature tuddee ko informel ñun ñu jéem ko formaliser suñu manière mais jéem a xool na nañuy fexe ba économie boobu tey jii mën a porter le développement du Sénégal réew mënoo développer wala prétendre à l'émergence ba noppi di renier sa culture ak say say say particularités mm. di dem ci leneen loo xamante ni yëfu nasaraan la xoolal rek pour wane la tellement que ñoom parfois dañuy jàppee ay nit ñu xamante ni ñu absurde nañu ba ñu ñëwee Afrique lan moo nekkoon raison pour ñu coloniser ñu dañu gis suñuy maam solo ñu yére mm-hmm. ñu ni non ah. Afrique continent mm-hmm. voilà dañuy civiliser continent euh, à histoire euh, amuñu civilisation barbare ak yooyu mais lan lañuy nekk di revendiquer tey jii au niveau de l'Europe nekkuñu di naan dañuy fexe ba defal promotion ñi nga xamante ni dañ tuddee sa ay nudité mhm. ñu dul sol yére ah. donc ñun soluñu woon yére nekkuñu woon ay nit ay barbaar nañu tey ji ay voilà tey ji ñoom ñu tuddee seen bopp ay naturaliste mhm. ñoom ñi nga xamante ni dañuy taxaw di naan nit ki mën na toog am na liberté ba ñu sol yére dëgg ñu koy wutal ay bërëb mhm. ñooñu ñu leen ay barbaar te pourtant ñun suñu maam bañ koy def ñoom si lañuy defee si lañuy utiliser prétexte boobu ba coloniser ñu ba ni dañuy jàngal civilisation indi ñu seen école bi indi ñu seen leneen ak leneen ak leneen donc je crois que ni tey wax dëgg yàlla war nañu mën a couper le cordon ombilical qui nous lie ak la France ak li nga xamante ni mooy occidentaux yi. parce que tey li nga xamante ni ñun dañ koy dund si ay difficultés ñoom ñoo ñu ko teg. mun ñu jël suñuy ressources ak suñu ay matières premières di leen ko jox ñuy yóbbu ñaata entreprise ñoo fi nekk di ay entreprise française ñu leen def ay exonération fixe euh, exonération fiscale. Hmm. ñaata tey jii sénégalais ñoom ñoo fiy nekk tabax seen entreprise mais du gis benn marché. donc je crois que tey vraiment soxlawuñu di dem ci France pour jéem a xool nan nañuy waxtaanee koom-koomu Afrique mais fii nañuy toog xëcc ñi nga xamante ne ay sénégalais nañu parti de zéro ba tey jii am li ñu doon am li ñu li li ñu am ñooñ ñu waxtaan ak ñoom ñu jéem a xool nan nañuy fexee ba bâtir benn économie boo xamante ni bu viable la te du ñu envier kenn ci adduna bi loolu yaakaar naa ne moom moo ëpp njëriñ que ñiy dem ci ay bitim réew ñi ñuy jiwaat taxaw di ñu naan ay way dañuy former ay nit ñu kenn xamul formation professionnelle moson bi lan lay def du formation professionnelle jël xale boo xamante ni 15 ans la tàggat ko ba xale bi di tabax immeuble nga ni ko non non no non parce que jaaroo ci école formation ñu la jox diplôme menuisier métallique bi lan lay def jël xale boo xamante ni amul dara ci xelam mu jàngal ko ba kooku tey jii di dafax di liggéey nga ni ko non non non formation professionnelle kii bokku ci ak keneen ak keneen mécanicien ak ñeneen ak ñeneen léegi yow ngay toog naan non dañu war a dem ci formation professionnelle alors que quartier boo dem di nga fa fekk atelier mécanicien atelier atelier soudeur métallique di nga fa fekk ay maçon di nga fa fekk ay peintre ñoom minimum ñi ngi former chaque année deux à trois personnes léegi doo fexe ba ñooñ ñi mën a am ay diplôme yoo xamante ne bu ñu paree seen formation dañ koy jox xale yi au lieu ngay naan da ngay dem di tabax yoo xamante ne pour formation professionnelle donc je crois que vraiment bu ñu jëlee mbir ko ci li nga xamante ne mooy suñu particularité dinañ xam ni que lii ñuy wuti ji bitim réew am nañ ko fii mais dañ ko fullaalu mhm. d'accord euh, Thierno mhm. mi ngi wax buum bi ñu dagg ko mhm. euh, pour mën a sukkali bu baax baax suñu koom mais ndax dina yombee ni buñ ko xoolee si FMI banque mondiale ak tamit ñoom gët yi nga xam nii ñu ngi koy am si suñuy politique publique bu ñuy buggee sax mën a yenn politique yi ñoom ñoo ñuy lebal yenn saa bu amee fu ñu toll ñoom ñoo ñëw càmbar ñu wax ñu yan orientation la ñu war a jël au plan macroéconomique. Mhm. loolu yëpp tamit buñ ko boolee est-ce que ñun nous sommes encore est-ce que jege neen sax le bout du tunnel. comme ni am mu wax sëñ Pape Matar mu ne lu ñuy wut ci tubaab yi ñun demuñ ci ñoom ñoom ñoo ñëw si ñun mhm. loolu tam bu ñu ko fàtte ñoom ñoo toog ba si yàgg soxla ay matières premières ak yeneen affaire ñu ñëw coloniser ñu ma jox la benn misaal lu doon porté suñu développement démb xam nga arachide bi la. Mm-hmm. à partir des années cinquante parce que crise agriculture bi foofu la commencé. tubaab bi dañoo dem ba si yàgg l'arachide l'arachide bi n'était plus rentable ñu redéployé wu ci cacao café ak ay kapsuk léegi doole bi ñu joxoon Sénégal xam nga fii moo nekkoon euh, immeuble AOF yëpp fii moo seen capital ñu joxoon Côte d'Ivoire quelque temps rek Côte d'Ivoire romb ñu doubler la production du Ghana yi ma lay wax nii yëpp ay café ay cacao xanaa à partir de foofu nag euh, xam nga mi ngi wax affaire emploi d'accord naa ci moom hmm? nit ñi dañuy xëy di liggéey fii dañu naan informel dañ ko war a relativiser parce que nit ñi dañuy xëy di liggéey mais dañ ko saboté c'est-à-dire que l'État absent comment l'État est absent avant da doon gis fii un secteur industriel fort boo duggee ci tëli yaraax bi ba mbaaw lépp ay usines la yu ay sénégalais moom wax ma yi fa des nga xam ne libanais ko moom parce que sa binôme tey moo téye dëkk bi libano français après dinaa expliquer yeneen donc euh, Star Senghor dafa amoon ay moment ñu définir ay pole ci industrie bi parce que xam nga agriculture bu amee doole industrie am doole am industrie textile quatre pôles halieutique minière ak touristique yooyu yëpp daanu na boo jëlee textile Sotiba Simpafric ay Ecotaf yëpp ndërmeelu na nga jël industrie halieutique Union européenne ñëw dugal ci ay affaire am ak yooyu noonu Russie ak ñëpp dajaloo fi ba léegi tous nos cités côtières dëkku lébu yeeg yooyu xale yi amatuñu liggéey. moo andi moo gën a exacerber le phénomène de l'immigration clandestine affaire minière bi duñ ci dañuy dégg rek duñu gis hors de Sabodala dañuy dégg rek mais kenn xamul ban jeexital la ñu amal mu ànd ak après ak tourisme bi tam nan beelu loolu sax moom la ñu mënoon bàyyi tuuti mais même loolu sax bàyyiwuñ ñu ko parce que yi ci gën a mag tey ñoom ñoo ko moom entreprise yi yëngatu ci secteur boobu tourisme xam nga soppi ko encore tourisme se noonu donc industrie amuñ ko doog donc état mënut a nekk état buy porter ay emploi fokk nit ñi ñooy jéem a gérer bopp parce que yaa ngi ñëw donc ci politique FMI ak banque mondiale l'ultralibéralisme crée la pauvreté et après il le gère mooy politique d'urgence yi ngay dégg nii PUDC plan d'urgence de développement ay urgence rek tout est urgence parce que on gère les conjonctures on gère les contingences on ne se précipite pas sur les solutions durables lépp lu def nii il gère la crise ñoom xale yi dañu toog ba si yàgg mer naan emploi ñu andi benn tëf yëngal bu dee Senghor la mu ne compte cas deux xam na jëmul fenn ñu toog ba si yàgg xale yi yëngatuwaat Abdou Diouf na opération maîtrisard quoi maîtrisard kay ñu dem ba si yàgg looloo ñëw FNPJ ANEJ ba ci DER délégation pour l'entrepreneuriat rapide pourquoi muy rapide <laughs> ma lay wan ne ñu ngi lay nax l'entrepreneuriat ça se construit parce que l'objectif il doit être smart spécifique mesurable à temps ay durée boo ko a donc xam nga dañuy nax nit ñi depuis année 70 donc ci lañ commencé andi politique yi parce que mooy ci question bi nga doon sànq abordé tuuti mooy affaire dette bi parce que nag ñoom am nañ crise ñoom tamit mooy choc pétrolier bi am te ñu ngi doon lebal xaalis rek il faut ñu fayako léegi ni ñuy fayakoo foofu dañuy andi lu ñu naan dès 1979 le plan de redressement économique et financier PREF muy préfigurer les mm-hmm. ñu ne moyen d' état mieux d' état boobu dañuy touché suñu élèves ay cahier di nu mu ti lépp bay baykat yi ñu leen di may ay matériel lépp di leen ko jàppale léegi ñu ne état bi dootoo ko defate ci loolu xaalis bi dootoo dimbaleeti kenn yow da nga koy def ci ay marché ñun suñu entreprise tubaab de l'éducation porté par Iba Der Thiam feu Iba donc loolu ngeen di wàññi seen loxo ngeen koy def ay marché ay télé ay yeneen affaire loo xam ne daal ñu suñu entreprise dinañ ci am njëriñ donc l' état cesse d' être aux côtés du peuple l' foofu dafay cessé alors que Malaisie le contraire la def comme li Pape Matar wax lañ def dans la fin des années à la fin des années quatre-vingt-dix dañoo àndi le président Mahathir le premier ministre Mahathir boobu ay solution mu football ko sànni ko fële ne li appliqué wu ma ko boo ku ma nekkoon ci yoonu émergence comme ni mu koy définir dès 1968 seen langue nationale la imposé ci dëkk bi donc mi ngi formé gars yi ci culture ñu. liggéey le président Macky Sall bi mu doog a falu en mm. mais espoir yooyu la doon porté ñu yaakaaroon ne euh, dina def ay ruptures yoo xam ne nii des ruptures yu ama am solo ba sa son premier ministre euh, à l'époque Abdoul Mbaye mm. rupture boobu noonu la doon wax di ko chanté. xam nga entre le après quelque mm. temps rek on a vu que. Mhm. voilà am na tuuti jaloon bu si am lan moo taxul ak est-ce que nekkul tam réalité yooyu noonu nga doon wax sànq si wàllum gestion de moom moo ko dab ba mu xaw xam nga entre le a un gap que la magie du donc euh, foofu foofu toujours euh, ci ci ci affaire li ñuy wax noonu ay affaire réalité état est-ce est comprendre nga moom xam na yoon bi de. parce que bi mu amee problème fay salaire euh, France la dem uti fa xaalis. pour exonération yi laa doon ñëw xoo ko fàtte. 400 milliards. ci exonération temps yi jëwriñ bi Abdoulaye Daouda Diallo taxawul ne exonération yi dinañ ci taxaw dinañ rëkk ay ndigg France daal di xëy na déggatoo sax mu koy waxaat boobu hmm. parce que am na opposition yi yu yuuxu ci exonération rek il faut ñu xaw a dal fàtte nañ ko sax waxatuñ sax lu jëm ci affaire exonération parce que xam nga dama ko wax toujours dans un état y a des accords yi nit ñi di xam ak des accords yoo xam ne nii doo ko xam ma jeexalee benn ponk xam nga sànq ba tey ñun France ñuy wax dafa ne moo renvoyé à la colonisation à l'impérialisme mais tey Sénégal dafa nekk le point de télescopage de plusieurs agendas des puissances internationales. Absolument. La France même accuse une perte de terrain par rapport à so précaré originel. Mm-hmm. tey ay Inde Chine mi ngi ñëw. Turquie mi ngi ñëw. Mm-hmm. surtout Turquie. Turquie. Mm-hmm. surtout Turquie. gis nga ànd boobu noonu toujours ma damay defe ne yi dañ koy fàtte yenn saa yi nii quoi Turquie tey percée bi ñu am Dakar. c'est relié à un projet de renaissance ñëw ottomaniste xam nga ottoman yi empire ottoman tey fi nekk turki ñoom ñoo fi jiitu tubaab yi colonisé Algérie Égypte Tunisie ba mu des Maroc en tout cas les célèbres guerres euh, turco kii quoi am suñu tuuti entre les ottomans et les marocains donc marocains yi rek ñoo résister mais tey turquie yi ñu ngi ñëwaat Afrique de l'Ouest Sénégal mooy cette brèche xoolal la frénésie de voyage sur l'axe Ankara Dakar depuis 1913 depuis 2013 ba tey ñaata voyage moo am. parce que ñoom depuis 1998 bu ñu mënta dugg Union européenne dañoo théoriser le retour en Afrique force ñu dem ànd ak Afrique léegi pour mën a développé wu. mais Turquie ñoom tey suñu secteur yëpp lañu jël teg ci loxo te man gisuma rentabilité bu ñu amal nii aéroport boo xam ne par nañ ko à 95 pour 85 pour cent ñoo ko tabax ñu eggali ko rek di ko gérer defe naa sax léegi ñu ngi réviser loolu. centre Diamniadio boobu noonu on a vu que Côte d'Ivoire réalisé nañu centre kii nu stade bu Diamniadio bi Côte d'Ivoire réalisé nañu stade bu gërëm mag deux fois moins cher bu fayee donc. Euh, ba pare euh, day wane doole Turquie day wane doole léegi nag Turquie xam nga lu grave ci impérialisme Turquie tëj bu ñu tëjoon euh, yow yow Selim rek wane na doole bi Turquie am ak ñoom tamit ni ñuy ñëwee non xam nga lu ci garaaw jëlal Maroc exemple Maroc loolu histoire la nee naa la ci temps empire ottoman Maroc rek moo résisté mm-hmm. tax gars fàtte wax boobu. Maroc dafa signé signé accord de libre échange ak Turquie dès 2004 2006 mu nekk en vigueur ndeke marocain li ñuy gën a gis ne Turquie ñu leen di nax ñoom seen secteur textile mi ngi dee alors que bu Turquie mi ngi développé seen ministre du commerce woo daje ak ministre commerce bu Turquie ñu ne dañ koy dañ koy résilier mm-hmm. contrat bi mm-hmm. donc bu ñu inspiré ci Maroc mën nañ gis Turquie dégâts yu ñu def. donc euh, tey même au plan sécuritaire aussi donc tey dañuy appuyer en même si waaw xam nga yooyu nag euh, lacrymogène sax ay lacrymogène sax foofu xam nga sànq dama ne mhm. les aspects militaires sécuritaires souvent dama ciy bëgg a sori parce que dafa xaw a sensible mhm. comprends nga pour mhm. yenn raisons yi tax mais lu ñu gëstu la tamit parce que bëri ci at ay militaires africains yi ñu jël leen former du ma ne sénégalais quoi pour des raisons de sécurité mais ay militaires en tout cas africains yoo xam ne turcs ñu leen di former parce Erdogan dès 2014 ba loolu tam mën nañu ko saluer et le théoricien de rapport égalitaire entre états nee na yi bu bëggee libéré wu ci occidentaux yi ñëw leen ànd ak man te moom dafa am lu ko dimbale ci dëkk yu mel ni ñun mooy dafay def benn harangue loo xam ne da koy fondé ci diine. Mhm. xam nga question homosexualité bi par exemple dañ fay am point de convergence. ak discours am day dugg peuple africain yi. Mhm. parce que daf ciy am ay démarcation yu leer genre yooyu. donc xam nga que et puis comme ni ma ko waxee Turquie daf c'est un mot am ottoman turc xamoo loolu kii lañ ko jox nordistes yi Afrique nord africain yi après ñun ñu def ba jël mot boobu parce que diwaan si ñoom. Mhm. mooy li nekkoon palais genre palais quoi xam nga yu demee noonu. Mhm. donc ñoom islam bi nga xam ne ñun tey fa lañ bokk. lu yàgg ñoom ñoo téye les lieux saints di ko contrôler ak yooyu loolu 1923 la dakk l'accord de Lausanne bi turc bi bi entre ottoman démembré woo quoi génn ci. Mhm. donc voilà souveraineté daal mënuñ ko am tant amul unité africaine comme disait le président Nkrumah Ghana mu njëkk indépendant mu ne cette indépendance du Ghana ne servira à rien tant qu'on n'aura pas réalisé la l'unité de toute l'Afrique pour la régler la question de la souveraineté il faut une Afrique véritablement unie. d' léegi dañuy avancer tuuti euh, parce que aussi économie dafa laal mbirum stabilité sociale parce que euh, bu ñuy xoolaat bu baax a baax si ginnaaw euh, vers fin février début mars aussi li ñu tuddee risque pays <laughs> bu Sénégal yéegoon na trop li ko fi amaloon moom mooy événement yi fi xewoon. Euh, barki démb gis ne ne le MDD mi ngi woon sa Bignona ngir euh, ñaanal way euh, dawlu yi nga xam te ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan si yëngu yëngu yooyu mu mel ni tamit am na mémorandum boo xam te MDD mu ngi koy pare gannaaw bi nga déglu discours yi ñu tenir foofu amaan am na ñoo si déglu sa Bignona Pape Matar nan nga koy décrypter waaw li euh, ñu koy kiiwee rek mooy dañ koy rafetlu parce que discours en tout cas lu si gën a bëri mooy di fexe ba sacrifice yi nga xamante ni gis nañ ko di perte en vie humaines moom bañ a doon ay pertes yoo xamante ni inutile la comme ni ñu ko fi gisee woon malheureusement euh, si 2012 parce que Macky Sall pour mu falu il a fallu que douze personnes meurent te tey jii euh, les gens se disent douze personnes yooyu tey jii est-ce que bu ñu doon dund dinañu sacrifier waat pour lii fi am donc ñii fi jóge seen euh, ñaax seen bakkan aussi dañ leen ñaanal yàlla mais responsabilité politique yi surtout ñi nga xamante ne dañu ne ci ku jóge parce que tamit ñu gis ay nit ñoo xamante ni dañu jug pour ay idéal idéal yoo xamante ni yaa leen ko gëmloo gëmloo leen que démocratie dafa war am ci réew mi que daf war a sax que Sénégal war na mën a prétendre à l'émergence war na mën a doon réew bu naat ba ñooñu mu jaral leen ba ñàkk seen bakkan ci ay manifestations donc ñooñu tey jii bu ñu la joxee responsabilité war ko mën a assumer war nga mën a fexe ba ñooñu tey jii bu ñu tëddee fu ñu tëddee au moins ñu am benn fierté ni ñu de suñu euh, bakkan bi jóge nañ fi de mais servir na à quelque chose mm-hmm. mais aussi là dinañ si poser ay questions parce que depuis Mamadou Diop euh, université Cheikh Anta Diop mm-hmm. na mm-hmm. ci première année bi si nañ leen commencé woon di neexal tuuti mais lu rey di Diop moo rey presque Bassirou Bassirou Faye mhm. moo rey Fallou Sène moom mooy continuer di perturber mhm. qui étudie université yëpp mhm. cest à mooy fexe ba seen bourse yu ñu teel see jot étudiants yi ñu condition yoo xamante ni kon si pédagogie en tout cas condition yoo xamante ni ñoom dinañu mën a prétendre sax di jël cours normalement pour que mën a jàng mais condition yooyu noonu tey jii ba tey dara dara sottiwu fi nit ñi ñi ngi ñàkk seen bakkan dafa mel ni éternel recommencement donc md 2 bu ñu ñëwee dañuy fexe ba li nga xamante ni mooy sacrifice yi mu bañ a doon ay sacrifice yu inutile mais dañ leen jox li nga xam ne mooy présomption en tout cas de bonne foi mais en tout cas dans les faits li ñu si tàmm di gis ci homme politique yi mooy li ñuy wax bu ñuy wut dafay wutee ak li nga xamante ni tey jii bu ñu amee dañ koy jëfee magisal tey boo xool candidat Macky Sall amul kenn ku lii ñuy toog di wax lu m 2 toog di wax lu euh, Ousmane Sonko toog di wax lu keneen toog di wax mais loolu yëpp Macky Sall wax na ko ak même lu ñuy wax fii si plateau si euh, plateau Seneweb bi toogoon na ni fexe ba Afrique am souveraineté au-delà du Sénégal toogoon na ni lan moo tax tali Sénégal di gën a cher tali Mali lan moo tax pétrole di gën a kii wak yeneen ak yeneen lii ñuy dénoncé yëpp waxoon nañu ko parce que produit yooyu noonu Sénégal lay jóge dem Mali dem Mali la gën a ki nga xamante ne moom moo nekkoon candidat bi donc vraiment am ay mbir yoo xamante ni wax dëgg yàlla il faut que ñu jéem ko dépasser nekkee bëgg nañu fexe ba Sénégal mën a mais loolu aussi responsabilité bi il faut que ñun ñi ne ci yi ak ñun ñi nga xamante ne am nañu deux wala trois yu ñuy déglu ñu neen di jéem a sensibiliser mm. gis nga l'homme providentiel n'existe pas réew yi lu leen di différencier du ci seen leadership ci seen population yi la il faut ñu xam ni même bu nekkee Macron moo fi nekk wala Donald Trump moo nekk Sénégal tant que ñi ngi am cette population boo xamante ne entre guillemets soumise ci ay besoins yoo xamante ne existentiel la mais population boobu noonu mënul fexe ba tirer le pays vers le o donc population moo mën a fexe ba président bi dafay tënku ci li nga xamante ne mooy charte yu ñu ko xoolal ci maire yi ñuy jëm di nga gis ay communes yoo xamante ni mais maire bi day toog cinq ans six ans musu fa teg tànkam élection yi di waaj mu ñëw taal fa ay ñaari làmp taal fa ay ñetti làmp ñetti dese am fa mu ñëw fa mm-hmm. ngénte am fa mu yónnee fa ceeb ak diwlin élection yi jot ñu foteel ko mm-hmm. te lan lendemain élection ñoom ñooy taxawaat di cas di naan maire bi nii euh, liggéeyul deful li deful la donc il faut que population ñu jël seen responsabilité ñuy bàyyi di voter nit parce que nit ki ñoo bokku sëriñ ñoo bokku quartier wala dafa may jox dara tant que ñi ngi demee yooyu mbir mais mun mënuñu fi am li nga xamante ne bëgg nañ ko ci li nga xamante ne mooy en terme de masse critique forte te masse critique forte boobu mooy fexe ba réew bi mën a naat mun a dem fen gis nga ci Turquie boobu lu tax nga euh, ma bëgg ci euh, kii ma bëgg si ñëw. non seulement lu ci gën a scandale du lool seen banque dañuy indiwaale. seen Exim banque. seen yow yaa leen di liggéey ñu def la ay prix yoo xamante ni prix yu doy waar la ba noppi ñoom ñuy indi seen banque ni la banque bii ngay ngay ngay ngay defar transaction xoolal li ñu imposé. yow nga signé ay contrat yoo xamante ni nangu nga ni ñoom ñooy exploiter aéroport bi mais aéroport boobu ak beneen aéroport minimum soixante-dix kilomètres la de facto da ngay obligé tëj Léopold Sédar Senghor Sénégal nekk Dakar capital boo xamante ni amul aéroport parce que yow yaa jël sa alal tabax sa aéroport nga jël jox ko ñi nga xamante ni ay turc nañ mais les naa n'en parlent pas parce que dafa mel ni dafa am benn genre franco ah franco francophobie mm-hmm. euh, euh, ñoom mën nañu nangu bu nekkee Turquie la mais bu nekkee France la ñu ni non non non dégage France dégage France lii France lii mais je crois que au-delà de France dafa am ay ñoo xamante ni tey jii ñi ngi nekk ci bitim réew ñi ngi ñëw fii mi marocain yi tey jii boo duggee ci ci suñu suuf si ñi ngi fa nekk di fa def agro business bu doy waar suñu population yi ñi nga xamante ni ñooy paysans yi tey jii mënatuñu jaay seen produit parce que marocain ñoom ñoo fa nekk mhm. turquie ñi ngi jënd ay suuf indien yi ñi ngi jënd ay suuf ak ñeneen ak ñeneen tey jii ñi ngi teg di saax-saaxee réew mi donc je crois que tey vraiment wax dëgg pour ñu mën a jéem a dem ci li nga xamante ne moom mooy soppi xar kanamu Sénégal il faut non seulement am politique bu bees mais politique bu yees boobu foog mu mën a ànd ak population boo xamante ni dafay changer dem ci li nga xamante ni li gën a li gën a jëmal euh, intérêt askan bi te ñu moytu ay intérêt ma la rek sur un point Bignona euh, souvent dañuy reprocher à nos politiques d'être insensibles si li nga xam te moom la askan njëkk yi keroog bi nga gisee euh, le malaise de Sonko ñu ne moom mu expliqué ko par l'émotion mm. loolu la la lay jox bon mën na ko expliquer par émotion dañ ko koy nangul parce que moom bu nekk eh, moom mu ko dund neen émotion la mais man très certainement bu ma nekkoon ci euh, entourage am direct dinaa ko ni il faut nga def bilan bu général parce que aussi Ousmane Sonko boo xoolee trois mois ci ginnaaw xool ko tey di nga gis ni mm. c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids mm. yoon la na parce que nit ko aussi bu ñu la tegee tuuma tuuma yu yu fort ni nga perdre autant de poids donc loolu au delà de émotion bi nga xamante ni mën na judd ci moom ba mu def malaise mais aussi émotion bi ci benn categorie de population donc tey jii bu nekkoon stade Léopold Sédar Senghor nit ñoo ñëpp taxaw fa di ko yuux Ousmane Sonko dafay amaan malaise donc je crois que il faut que moom mu jéem a def bilan xool lan moo nekk ci yaramam mm-hmm. bu nekkee dafa soxla repos mu toog noppaluku bu nekkee aussi dafay éviter di génn parce que nit ki gox kase nga mën a doon xamante am na loo xamante ni bu ñu ko doon wax ci yow nga am famille pour nga génn ci mbedd mi da ngay am problème parce que am na loo xamante ni rafetul ñu koy dégg ci wax surtout kilifa. boo xamante ni dafa am ay valeurs yu muy prôné donc je crois que ni vraiment entourage am war nañ ko mën a jàppale gën koo mettre à l'écart moom mu jël du recul toog noppalu ko bu baax a baax a baax mais surtout mu éviter. le plus euh, en tout cas lu gën a bëri mu éviter di génn surtout ci moment yi ba retrouver waat peut-être benn forme bi nga xamante ni xamee woon nañ ko ci moom loolu nag vraiment man dam koo koy suggérer parce que aussi au-delà de moom ni mu ko expliquer ñun aussi am nañ si xalaat te xalaat bu ma ci am wute na ak malaise boobu kese parce que Ousmane Sonko mën na toog koo xamante ni ay milliers de personnes taxaw fa war koo mën a créer malaise d'accord Euh, si image boobu. Ouais. après nga ñëwaat d'une manière générale les leçons à tirer de des événements de fin février mars mm-hmm. début mars. Mm-hmm. waaw xanaa comme kilifa la ñu masaw ko rek mais comme ni mu ko Pape Matar waxee daanaka bi ma xee ba pare du ma bëri lu ma ciy teg parce que ni mu ko waxee la man impression boobu laa am boo feebaree da ngay seeti docteur mais yow yaay def sa si quoi xam nga ne émotion wala yooyu comme lu mel noonu dal na la xam nga dafay tiital lu doy réew askan ñëpp. donc premier réflexe bi mooy da ngay dem nga tëdd nga toog ci docteur daal nga xoolaat sa yaram ba tane quoi ñu koy ñaanal yàlla mu génn ci quoi ci ci affaire bii nii vraiment xam nga tiis la quoi mais comme euh, alhamdulilah après il a pu retrouver sa forme ñu ngi sant yàlla. événement février de jàngat bi ma ciy am mooy mooy li ñuy wax nii sànq rek xam nga c'est des problèmes structurels depuis indépendance yi ba tey dañuy abaate dañuy avancer ci dansu salsa quoi deux pas en avant deux pas parce que Sénégal dafa am euh, balaa Macky Sall di falu ay précédent heureux ci démocratie yu teg Senghor teg na fi parti unique lii Macky Sall doon jéem moom jéem na ko mooy nekk buur nekk bu mi xam nga réduire l'opposition à sa plus simple expression dafa jóge ci événement 62 yi créer constitution boo xam ne dafa tax mu fort du loolu. Mhm. mais après loolu andi 68 68 mooy xaw a niroog li xawoon fii février. il a fallu en centre l'intervention de l'armée française pour rétablir après la stabilité du noonu Senghor xam ne lii demut mu rétablir poste premier ministre commencé déconcentrer tuuti après andi la loi sur les quatre courants du noonu ubbi def ouverture démocratique ne Abdou Diouf ñëw ne jàkk-jàng nii ku mën noddal multipartisme intégral mais moom tam moom ay sooxe mu débouché ci les événements malheureux de 1988 17 mai comme bërki démb la ñu ko doon bi jour Korité mu woo Ablaye Wade ci waxtaan après ñu dugg ci gouvernement bi xam nga mais surtout ñu am li ñaan code électoral consensuel de 1992 loolu am au conseil de l'audiovisuel opposition bi mën a accéder ci télé yi ak lépp jàmm ne ñooy après sax doon am ay coow yenn saay mais à chaque fois président Abdou ju def concession ba nommé un militaire hmm. feu le général Lamine Cissé ndax mu 2021 bi amoon na waxtaan comme xeetu waxtaan yooyu noonu maanaam réew mi nekk ci crise les principaux protagonistes wax daje waxtaan ci am na amaana loo xam ne askan non moo tax ma tiit moom laa lay wax nii xam nga boobu noonu euh, non gisaguñu ko 2021 bi ndax ndax am na waxtaan waaw bii mais bien sûr il va y avoir un développement progressif de la vérité bon Moustapha Diakhaté toog na seen plateau bi am lu mu ci wax mais ñun tam am na lu ñu ci for euh, non mën na ko ci sori nii quoi xam nga l'information on l'établit sur trois la preuve la projection la présomption bon mën na ci am ay euh, ay affaire nii mais amuñ ci ay preuve moo tax duñ ci mën a wax ni de pour le moment de manière formelle mhm. léegi nag peut-être des éléments vont se yoo xam ne ça va nous autoriser à dire mais fii ba loo wax dañ lay weddi rek ne li ngay wax ni waxu picc la parce que dafa sori loolu quoi fi muy xewee souvent mais bien sûr que am na ay affaires yoo xam ne nii xew na ci diggante bi donc parce que politique non xam nga politique moom depuis Abdou Diouf Ablaye Wade ay Idrissa Seck Ablaye Wade négociation diplomatie duñ la place publique du noonu dans l'ombre nañ koy def ñoom du feeñ ci temps Ablaye Wade Nicolas Bally journaliste RFI en 93 dafa taxaw mu ne ñi ngi négocier ñoom ñaar Ablaye Wade dañ koy jox poste vice président Ablaye Wade woowu Nicolas Bally këram ne ko interview xaw ma gars yi jàpp ko calobré dóor ba mu bëgg a dee parce que dafa sennal affaire bi ñu tekki tuuti Ablaye Wade dugg ci gouvernement bi xam nga pas en tant que vice président mais en tant ah, ah, ah, bi la dugaat noonu mooy bi muy dugaat bi muy dugaat donc affaire Idrissa Seck Abdoulaye Wade xam nga dañu fi daan waxtaan boo waxee dañu la amul. kon bii nii muñ ñu daax moom protocole bi bu demee xam nga bii nii dafay gën a complexe parce que forme yi bokkul ba tey quoi parce que bii d' benn nit la concerné du opposition bi yëpp donte ñoom ñëpp a ci xeex bi xam nga peut-être ni ñu ko géré moo tax ñeen ñi sax xamuñ ci dara. mais gis nañu tamit Sonko disparaître. waaw ah, loolu laa kenn kenn mënu ci wax dara. pendant des heures. benn cercle bu ndaw rek xëy na mooy xam. Ah. mënuñ la ci wax dara parce que c'est pas très organique saa ça lii affaire bu privé la bu ko fàtte ci la déparé donc peut-être am na bon ay niveau yoo xam ne nii peut-être rek nañ ko fa quoi en attendant peut-être ñu amaat occasion après ñëw fii fekk mu am ay éléments yoo xam ne bu déclenché rek ñun dinañ ci signaler ne ah, lii de méngoo na ak li ñu jógoon noonu. mais tout est-il xam nga man tam nga baal ma foofu jàllo ñun journalistes yi ni ñuy waxee deal deal deal man dama ci d'accordul parfois am na journalistes yoo xam ne seen marché yëpp mooy yaa deal yaa deal politique ak deal ñoo ànd deal bu baa baatu deal mooy dialogue mooy waxtaan il faut tey suñu ma dama tiit ci réew mi il faut que politiciens yi waxtaan pour andi solution maa ne la Abdou Diouf ak Abdoulaye dañoo waxtaan ma andi code consensuel de 92 Ablaye Wade ay 23 juin lu mu métti métti na may Cheikh Gueye benn ministre parce que c'est un profil consensuel mais Macky Sall na jubóo ak opposition am tamit parce que lii ma gis nii tey tout porte à croire que il va faire un troisième mandat man loolu laa gëm ba tey ah. malgré les événements de. malgré tout c'est une nécessité de sécurité pour assurer quelques arrières loolu mënuñ ko bañ force waay nii nii nii wii nii noo amul fenn c'est oui ou non. il refuse de dire oui, se considère que c'est non. <laughs> Mais il refuse de dire non aussi. Donc on... Non, non, il ne refuse pas de dire non. <laughs> lui, lui, il va faire un troisième mandat. man loolu laa jàpp tey parce que ñiy wax ci camp du ñu n'importe qui bu ñu waxee Macky troisième mandat ñu bàyyil seen poste mais ku ne ni Moustapha Diakhaté wala Sori Kaba boo waxee kii nu mu tuddati d'accord ma ci ñu dàq la mais joxe na indication bi bu leer mais nañ def attention xam nga ñoom ñoo fi wax force occulte man excluruma force occulte même bu nekkul Sénégal tey c'est dans notre voisinage dafa am ay paramètres yu dangereux tey Afrique man ku mel ni Pa Alioune dama koy déglu bu baax a baax te Macky Sall président Macky Sall am na intérêt pour di déglu ku mel ni Pa Alioune Tine wala ku mel ni professeur Abdoulaye Bathily ñooñu c'est des témoins de l'histoire ils parlent en connaissance de cause lenn di politique jaru ko ñun yàlla daf ñu dimbale comme ni ñu koy waxee am na ay mag ñun seetlu ñu fi nekk nii xëy na moo ñu dimbale ba lii nekk alerte rek ñu gis ne muy alerte ci affaire Adji Sarr bi donc dañ tirer mba kii écarté Karim Wade écarté Khalifa Sall à la Florentine def parrainage ci nit ñi pour rek yow nga falwaat nan ngay gisee Macky Sall am 49 pour cent 2017 après ñëw gagné tey ci suba maa koy fàttali ci benn post bu bind Facebook bisu 24 mai comme tey 98 waa PS dañoo am 50 virgule 2 pour cent législatif moo préfiguré seen départ mais présidentielle bi xam nga bëri na lu ci xel ci loo xam ne dafa lëndëm ci biir nii. léegi nag le président Macky Sall comme moom moo yor lenge yi na moytu mujjee puso mu réer na waxtaan ci affaire bi affaire Adji Sarr ak lépp man sa bon on est journaliste quoi mais jàpp nañu tam le Sénégal doit sub euh, il préexiste à Sonko à Macky il doit nu mu tuddati survivre. à Adji Sarr war a jiite à Sonko ñu xam ne moo sut à Macky Sall. oui parce que non ñun ñu ngi jëm ci lëndëm xaw ñu fu jëm dañuy dox nii rek mais y' a beaucoup de péril. ñu jàpp ne c'est réglé nag. Euh, mbir bi jàll na c'est un débat dépassé. non dépassé wuñ ko de ba tey problème baa ngi taxaw nii parce que bis bu fi bëggee def troisième mandat dafa am lu xew ci jamono gis nga coronavirus bi dafa ébranlé économie yëpp gis nga li tax mu mën a jàll nit ñi taluñu xiif boobu xëy xëy na xiifuñu xëy na maruñ comme tey mhm. mais tey nit ñi dañoo sonn. te nit ñoo ñu sonn nag. lu ñu nangu yenn yi de il faut loolu ñu def ko seen xel. dinaa ñëwaat si si yow. Euh, Sonko mu waroon dem wax si mbirum éco mënul dem ndax mbir mi ndax it tamit lii à longue mën koo gàllankoor moom en tant qu'opposant réduire ses déplacements et tout ak tamit le fekk mbir mi di gën a yàgg dem gunu justice ba tey il a été entendu une fois mais ba tey euh, demaatunu ndax loolu yi tamit mënul nekk une épée euh, Damoclès si dem effectivement parce que tey xam nga da ngay soxla ay partenaires extérieurs. da ngay soxla aussi dem di seeti say militants yi nga xamante dañ nekk bitim réew léegi loolu yëpp danga nga koy obligé tënk da ngay xaar ba beneen jamono mm. te beneen mbir bi ci gën a doy waa xam nga affaire 94 milliards ba Sonko Euh, demandé pour ñu leeral mbir boobu ba accuser sax ki nga xamante mooy Mamour Diallo mais dégluwuñu ko dégluwuñu ko bàyyi bu mu dugg ci campagne électorale ñu doog koy woo ni ko kaay ñu déglu ko mm-hmm. donc moom aussi njort na ni dañuy bëgg traîner dossier bi di waaj ñu doog woo di ko daan kaay ñu déglu la ci mbir boobu te moom jot na euh, yaakaar naa joxe na joxe na kàddoom ci lool mm-hmm. nee na bu nekkee ci loolu la du yi ji parce que xam na ni loolu yoon nekkatul di def liggéeyam dafa am yeneen mbir yoo xam ne dañ nekk si ginnaaw xam nga lu tax affaire euh, tere Sonko def déplacement mu doy waar dañuy fàttaliku rek ay feela yoo xamante ne ñun ñëpp nous avons été témoins mm-hmm. amoon na ñoo xamante ne dañ leen joxoon interdiction de sortie du le cas Ousmane Ngom Ousmane Ngom Macky Sall dugal ko ci avion mm-hmm. génn ak moom dem ci yoon mm-hmm. euh, Omar Sarr mii tey jii di siéger ci conseil des ministres amoon na interdiction sortie du territoire mu génn Sénégal dem ba Rosso Mauritanie bind état du Sénégal neen maa ngi Rosso dellu si Sénégal di leen te dara fekk ko si. donc bu nekkee Sénégal bii li ñuy jàngal ci faculté yi dëgg la. que la justice est euh, xam euh, le droit est imp la loi est mais lan moo tax loi bu impersonnelle boobu dalul woon si kaw Omar Sarr dalul woon ci kaw Ousmane Ngom tey jii loi boobu wëlbatiku naan dafa bëgg dal ci kaw Ousmane Sonko donc ñëpp xam nañu ni. deux justice moo fi am justice boo xamante ni boo solee wala nga bokk ci benn bokk yaakaar justice boobu dalay jox benn immunité beneen justice boo xamante ne boo nekkee ci ko jegi dañ lay lépp loo xamante ni toog la lay teg donc vraiment tey waroon nañu mën a dépasser Sénégal bii nga xamante ni dafay prétendre ni réew boo xamante ne dafa am démocratie ñiy jël opposant comme Guinée fële nu mu jëlee Cellou Dalein Diallo ni ko doo génn biir Guinée tey au même moment Sénégal bi jox ay leçon Guinée Sénégal mooy def même chose que Guinée ba parfois sax président guinéen bi sax dafay toog di balak Sénégal parce que naan Sénégal bi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy wax ay démocratique leçon de démocratie ñoom tey ñoo jël seen ay opposants di leen taqal leen tuumal leen te ci kaso donc lii dafa nekk ay mbir yoo xamante ni sénégalais yi ñoom ñoo ci war a jug régleel ko seen bopp leen nañ ko mën defee nag mooy encore une fois parce que du ay armes du ay xeex rayante du ay taal pëna du ay taal ay institution mooy fexe di sensibiliser askan bi parce que man mm. dama jàpp ni askan bi kase moom moo mën a soppi li nga xamante ne moo nekk ci réew du homme politique parce que bu nekkoon homme politique ak xarañte njiitu njiitu réew président Abdoulaye Wade mm. mën nañ ko nangul xarañteem mm-hmm. Abdou Diouf quelque part Senghor mën nañ leen ko nangul mais ñoom ñëpp problème yi dañu resté dañu mel ne loo xamante ne dañu éterniser wu sax donc lii war a soppi Sénégal kay population bi population bi nga xamante ni ñoom ñooy voté ji dugg ci urne yi xool Mouhamed xool Euh, Alioune xool Pape Makhtar ni ñett ñi profil bi moom moo ma gënal au-delà de man rapport yi may am ak ñoom donc population boobu moom moo war a jéem a changer mbir bi te population bu changé wul mbir bi dinañ amaat beneen président bu amaat ku mel ni Ousmane Sonko mu koy defaat même chose yi parce que amul lenn lu bees si dëkk bi. Mm-hmm. mais bu ñu sukkandikoo tam si la yi nga xam ko ba léegi nii kenn le fond ak tamit yooyu noonu yëpp est-ce que tamit loolu mën na justifier une xam nga euh, nit dafay présenter ay garanties ku ni man dama bëgg doon njiitu réewu Sénégal. kooku xalaatul di génn Sénégal di daw di dem yoonam encore que député la am na fi parti am na fi patrimoine njabootam ne fi donc kooku yaakaar naa ne bu génnoon sax dem ni dootul ñëwati loolooy arrangé Macky Sall Sonko ni dem naa damay exilé wu dootuma ñëwati Sénégal moom Macky Sall dina mën a dégoulé parce que bu amee benn opposant bi ñuy naan opposant wu Macky Sall mais Ousmane Sonko dañ lay wax opposant boo xamante bu radical la bu koy indi ay difficulté kooku bu la nuyee day génn dem dootul ñëwati doo sant yàlla encore kooku nee na damay dem pour benn trois jours dellu si waat ci biir réew mais je crois que ni vraiment waroon nañ ko mën jox li nga xamante ni moom mooy euh, autorisation mu dem dellu si loolu du def lu dul wane grandeur li nga xamante ni suñu institution la mais aussi grandeur ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall ndax xam nañu ni derrière tout ça procureur bi kan moo ne ci ginnaaw ñëpp xam nañ ministre de la justice ministre de la lii yëpp lan lay wane que Macky moom moo bëggul Sonko dem te alors que intérim tey jii moo nekkoon mu bàyyi Sonko dem dafay defar image am dinañ ni président Macky Sall sax ku démocrate la parce que non seulement mënoon na ko bañ a bàyyi mu dem mais du ko bàyyi mu dem parce que Macky Sall même bu amoon volonté bi lan la ñuy waxtaane mm-hmm. éco nañuy waxtaane lan mooy dellu soit impérialisme parce que bu ñuy demee fële di waxtaan ci éco boobu lu ñuy wax njoxtu nañu ni du du neex France li ñuy wax njortu nañu ni du neex ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite Sénégal mm-hmm. ñoom ñoo jiite Macky Sall donc yow mi nga xamante ni am nga benn contrainte ci koo ko mën a teg mm-hmm. te kooku di nga ko empêcher mu dem wax waxi ji parole yoo xamante ne bu demee dina mën a influencer ay sénégalais ba ñu ni bu ñu leen indilee écho daal leen ni écho bii du dara nday astu la ñu soppi ko tuddee ko nday Marème amul lenn lu si soppeeku nasaraan yi duñu fi toogati parce que soxlaatuñu fi toogati am nañu ay nasaraan yu ñuul kuku sant Diallo sant Ndiaye sant Faye ñu mën a continuer di def même liggéey que nasaraan bi nga xamante ne balaa la santoon donc je crois que vraiment ne serait que pour. objet wu rencontre bi rek ñoom dañ ko ko doon gàntal parce que du ñu accepter tey jii ñiy yee sénégalais yi di leen xamal nii mi éco mi franc CFA du loolu mooy naatal réew mi amul benn économie tey ci Afrique bu développé ci làkku jàmbo ak ci alal boo xamante ni dafay continuer ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy mel ni lu ñuy lu ñuy lu ñuy euh, lu ñuy lu ñuy euh, euh, expression bi laa fàtte lu ñuy arrimer ci euro donc tey tant que Sénégal mënul am xaalis boppam boolekaat Afrique de l'Ouest xaalis waxuma la xaalis boo xamante ni nag ñoom dañuy jël idée yi xool nan nañ koy soppee ba mu arrangé leen ba Nigéria ni du si dugg ba Ghana ni du si dugg loolu nga xam ne di a problème te ñoom seen force en fait fan la dañuy xam ni Mouhamed am na ay revendications yu audible Mouhamed mi ngi commencé di influencer jeunes yi ñu ni Mouhamed ci loolu mu nekk dañ ko fay fekk jiitu ko fa comme période boobu ñu mel ni ñoom Kémi Séba ñu mel ni ñoom Guy Marius Sagna ñu mel ni ñeneen ak ñeneen ñu ngi doon taxaw naan franc CFA doy na na fi jóge ñu ne déedéet comme revendication c'est une revendication audible nañu fexe ba jéem a fexe ba ñu dévoyer ko indil leen yeneen contourner revendication yi comme CFA nañuy wax nañ leen indil beneen euro boo xamante ni day mel ni ñoom seen revendication lañ leen fekk alors que ñoom ñooy wëlbatikuwaat di ci ginnaaw éco boobu et que boobu nag loolu bu ñu demoon euh, ci ci ci ci ci cérémonie yu mel noonu Ousmane Sonko dina wax même chose yooyu dina dina génn yenn mbir yoo xamante ni bu ñu ko partagé waatee ci réseaux sociaux yi dina yee dina conscientiser te loolu du ko du leen arrangé parce que ñoom dañu bëgg di continuer di infantiliser peuple yi. Thierno Diop sur cette même question ndax comprendre nga aussi cette interdiction de sortie du territoire national bi nga ni moom leen a le principe de la double implication la justice qui s'applique à tous qui est faite par tous et à tous. donc mënoo nangul li Ousmane Ngom ak Omar Sarr nga bañal ko Ousmane Sonko ça pose problème mais globalement xam nga nu ma xamee problème bi man jamais renvoyé les partis dos à dos muy sonk di Macky moo tax may sànq nañ ñu dimbale parce que ñoom tam moomuñu réew mi dañ ko bokk du noonu Sonko waruñ la woo ne rek kaay wuy gendarmerie nga am benn bravade booy def tam du noonu depuis Mamadou Dia ba tey homme politique bu fi jaar bu ñu la convoqué da ngay dem. mais foofu tam man d'accorduma ci foofu thèse bu mu jël comme defoo dara demal bu ñu la jaay injustice c'est fair de notre justice on le règle mais d'accorduma rek nga ñëw ne tëj nañ Karim tëj nañ xalifa parce que yow tëju Karim ak Khalifa moo tax nga feeñ justement weñ gi mi ngi yàqoo ci mbañ xaar ga waa ji dès ko mu ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression rek man dam man fekk na ma fii maa ngi ci doon xeex maa ngi ci doon xeex nga ci niveau bi ma nekk dem naa ci ay plateau wax ci xam ne lii du jur jàmm loolu andi phénomène Sonko léegi président Macky Sall gère ce phénomène Sonko parce que yaa ko créé tam pour man affaire bi noonu la tëddee moom na gérer phénomène Sonko foofu laay rejoindre sa waa ji parce que tey bu nga baal ma quoi discours yi bëri na ay euh, ni ñu koy waxee dafa bëri ay affaire lëndëm man par exemple su ma doon conseil Ousmane Sonko du ma ko conseillé mu dem foofu. pour la non que yaa ngi légitimer. justement li muy wax nii li tubaab di wàcc CFA bi dañ ko waroon boycotté comme ni ko Nathalie Yamb defee man position boobu laa d' accord ñoom ñu ko porté yëpp c' est des de la France Afrique débat boobu noonu léegi dañoo bëgg ñëw xam nañ ne intellectuellement ñoo gën a outillé Sonko et crois moi ci débat wu CFA mu ne ñoo gën a outillé Sonko dañuy bàyyi Sonko teg ay argument ñu démonté ko après jël seen presse ne voilà gis nga fee ay activistes yi ñu kii xam nga xeebuma Sonko ah ma ko mais tam dama mesurer li ma lay wax nii xam finalité yi ci am finalité yooyu la Nathalie Yambou combat bi mu mënee ci CFA bi Ousmane Sonko mënewu ko bi ñu ko woowee dafa bañ parce que xam na ne loolu noonu benn genre kii la rek benn cinéma incomplet la rek c'est une comédie rek pour gis ngeen ñii di wax sax lu ñuy wax benn donne bi mooy la Côte cent de hmm. xam nga au fait bu moom bu Macron ne xonk na mën a cuur kii nu mu tëddi astafurlah Alassane <laughs> Ouattara bu Macron ne na mën a cuur bu ne weex na mu ne taal bu ne ñuul na mën a kukk moom léppam tubaab la ngor kii ngoo kii nu mu tudd Cor Dominique léppam tubaab la moom. Ado waaw Ado mooy Cor Dominique Ouattara dégg nga moom dafa bëgg tubaab léegi nag dèjà loolu daf ñu gàllankoor loolu dafay entraîner position wu Sénégal xam nga léegi mu des le géant Nigéria effectivement àndu ci ak yooyu justement moo tax Nathalie Yamoune lu ñu boolewul Nigéria ak Ghana du ñu dem sax da ci débat. suñu pertinence bi bon on reconnaît à Sonko ses kon président Macky Sall da ko rendre mais tout compte li ma la waxoon sànq xam nga fii dara rek li changé wu y a rien de changé sous le soleil Sonko génn na prison ni ñu la manifester ñibbi nañ mais ba tey les pelis restent te nañ ko réglé ñoom ñaar Lamine Gueye ak Senghor jaar nañ ci ils ont pu surmonter leur contradiction Abdou Diouf Ablaye wadd jaar nañ ci ba ci Ablaye Wade ak opposition parce que ni mu dëgëree nii xam nga cooki bi nii ni xeex bi ni mu dëgëree nii xam nga moomuñ dëkk bi tam quoi mais régler si ban concrètement. régler si non non gisee waxtaan guddi. non on ne fait la diplomatie sur la place publique mais mais concrètement quoi. rek Abdou bi ñuy waxtaan papa ngeen lañ daan daje. mais ñu naan libre Marcel Mendy la longue marche du SOP ñu ngi koy expliqué. dañuy nëbbatu sax Ousmane Ngom day jiitu après Abdoulaye di topp ci genre yooyu fexe ba génne après benn résultat comprendre nga mais tey Ousmane Sonko parce que bipolarisation bi noonu la tëggee tëddee Ousmane Sonko la ak Macky Sall. force suñu am solution ñoom ñaar quoi mais lii mënut a continuer dama ne la Macky Sall président Macky Sall am na ci part de responsabilité parce que tam dañoo jàppoon justice ak lu bëri suñu démocratie bi di foo rek quoi affaire yi gars yi di tàccu xam nga sàll ngaari lam tooro sàll ngaari lam tooro affaire demee noonu muy avancé rek tey nag affaire yooyu moo ñu rattrapé fañing fañing di yuuxu di fecc rek xam nga loolu moo ko rattrapé moo tax mooy na ko gérer parce que tamit euh, borom càq du xeex borom baatu neen te langu noonu tuuti. boo xaymee ne sonko bi sonko bi kese la nit ñi tey ils sont tenaillés par euh, benn genre marasme économique bu métti moo tax réflexion yi ngay def yow Macky Sall ak ñu la wër ñoom duñ ko defan ah. li ñuy gis mooy waa ji moo nekk suñu wet sonko dañ koy fekk ci après nag euh, xam nga du du kii quoi du loo xam ne daf ñu arrangé. Mm-hmm, mm-hmm. xaw ma tax posé nga li ma bëgg a wax. waaw pour l'intérêt du pays. waaw ñoom ñaar dañoo war a. solution seen kii après ñu jaar. autant sonko ci affaire Adji Sarr na tabaay boo xam ne rafetlu ko parce que y' a beaucoup de nébuleuses. dès lors qu'il y a un faisceau d'indices concordants, à adm faire admettre ta convocation à la gendarmerie da nga war a wuyu ji loo fa doon wut guddi àndoo garde corps ne nga xaw ma yow amoo deux cent mille francs massage dafay jaaxal nit ñu bëri bu ñu gisee sa train de vie ak yu affaire demee noonu encore que ndekk sax affaire bi eggul deux cent mille francs ay trente mille la ak yooyu donc c'est toute chose yoo xam ne qui obscurcissent l'esprit et qui devrait te disposer à defoo ko parce que dafa tombé justement coronavirus dont les restrictions dafa andi benn marasme économique bu métti nit ñi bëggoon xeex di wut ku leen xeex leen léegi hors contexte coronavirus bu Sonko woote woon xeex lu muy niru la lépp tam ay question la mais balaa ñuy xeex nañ juboo rek parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi muy président Sonko du président Macky Sall politique rapport de force la mais à un certain moment il faut savoir s'arrêter nga xool l'intérêt supérieur de la nation mënoo bañal li Ousmane li bañal li Ousmane Sonko di ko nangul Ousmane Ngom parce que ñoom ñaar ñëpp Ousmane lañ tudd te ay sénégalais lañ. waa ji leer dañuy dem rapidement sur euh, le projet de redécoupage de la région de Dakar euh, mu jur ay interprétation yu bëri ak euh, ay ay analyses yu bëree bari am na sax aussi ay dëkk yoo xam ne si manifesté di su mel ni Yëmbal Bambilor Euh, ba sax euh, Sangalkam yi tamit ndax am na ay xëccoo yu fa am ci wàllum collectivité territoriale yi euh, nan nga gisee ce projet ak tamit beneen département bi nga xam ni ñu ngi koy waaj fii si mu nekk département bu Kër Massar. waaw mais du du du du lu bees c'est juste comme ni ñu ko fi defee woon si jamonoy Abdou Diouf ba ñuy découvrir Pikine di ko def ay département yi dul jeex fekk Dakar di ko tas def ko 16 xaw ma ñaata 19 communes. Mhm. tey jii loolu moo dellusiwaat ci Kër Massar. Kër Massar booy koy delluwaat ci contexte bi dafa fekkoon benn context inondation nit ñi ñuy dund benn inondation nekkoon ci ay jafe-jafe ay souffrance yu tax Macky Sall leen benn séance il a fallu que opinion publique bi commencé gars yi di wax di wax di wax di wax ba mu obligé dem fa mais ba mu demee xamul lu mu fay def parce que gis na ni ndox bee ngi nii xamul lan la leen mën a promettre mais mu leen d' accord comme am na benn vieille doléance boo xamante ni ñii ñi ngi koy wax xam profite aussi parce que président boo xamante ni chaque fois dilatoire lay def dafay defaat dilatoire hmm. ñëw ni leen d' accord man dinaa def Kër Massar euh, hmm. département mais ni boo defee Kër Massar département dafay résoudre ay problèmes hmm. mais yaakaar nañu ni département balaa nga koy ériger dafay am ay mbir yoo xamante ñoom ñoo war a njëkk tegu ay infrastructures yoo xamante ni dina am am na ay région yoo xamante ni Mohamed existé nañu te tey ji région yooyu noonu tour région kese nañu am amuñu hôpital bu baax amuñu plateau sanitaire boo xamante ni plateau médical boo xamante ni bu existant la amuñu sax ay bërëb yoo xamante ni ay këyitu état civil fa nga koy jëlee sori na may waxu yenn région yi boo duggee ci banlieue bi am na ñoo xamante ni ay xale bu ñu demee ba CM2 war a def seen examen duñ ko mën a def ndax amuñu këyitu judd nga dugg ci banlieue bi nii waxuma la fenn nga dem côté Kër Massar boobu noonu ñii naan dañ koy def département mais pour am pompe bi mi ngi ah. ndox bi ci nappe phréatique bi te au même moment ci à côté dañuy am li nga xamante ne ay fosses perdues nañu maanaam ñooñu mën nañu njort ni ndox bu ñuy utiliser miy dem di doon ay déchets ndox fo eaux usées yooyu moom nañuy pompé waat ci seen ci seen di ko utiliser est-ce que woon na pertinence proposition du président Macky Sall parce que bu ñu départementaliser ab gox day euh, ça sous-entend que tous les services de l'État dafa war a topp euh, war nañ am au moins benn hôpital de niveau un war nañ am tamit ay yeneen mbir yoo xam ne ñoom ñoo siy topp si wàllum ay infrastructure socio-économique de base yi tamit daf siy toppaale est-ce que tamit loolu du wane ak boom démographique bi nga xam te ne moom moo am Kër Massar est-ce que woonul pertinence euh, existé rek ñu jël par exemple exemple Diourbel Diourbel président Macky Sall dem na fa bëgg fu mu fanaan amu fa parce que hôtel de ville bi kaña sax mënu faa fanaan porcherie la dafa obligé dem fanaan ji fi nga xamante ni Touba te pourtant Diourbel am na département la région <coughs> alors bu nekkoon buñ la defee buñ la érigé département si réew mi voilà hmm. buñ la érigé département wala ñuy def la région dañuy résoudre tous tes problèmes mais bu nekkoon loolu la ñu def département euh, Kër Massar mais ñëpp dañuy tàccu Abdoulaye Wade ba mu ñëwee fekk fi onze régions mu doole ci trois demal région yu ñuy dolli nga xool lan moo fa nekk ci infrastructure di nga fa fekk police d'accord mais lan lañ lay wax police bi dafay nekk sous effectif di nga fa fekk gendarmerie ñun la sous effectif quand sapeur pompier bu fay nekk benn oto fay nekk hôpital yi fay nekk ay mouroir lay doon parce que dañuy doon benn batiment bu ñu tabax boo xamante ni dara du nekk ci biir hôpital Ziguinchor ñëpp wax nañ ko donc je crois que ni tey problème yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ñoom bu ñu ko bëggee résoudre di ñu wax waxu incohérence territoriale incohérence bu njëkk taxaw mooy tey jii nga ne da def département foo xamante ni euh, encore une fois ndox problème la accès à bi nekkul accès bu universel courant problème la école bu baax problème la waxuma la sax waxu université wala wala ay lycée yoo xamante ni yu baax la donc je crois que tey bu duggoon ci Kër Massar fexe ba def fa ay infrastructures yu doy. boobaa Kër Massar doon région dafay imposer dafay euh, département dafay imposer wu du doon loo xamante ni sax Macky Sall da koy propose mais ñëw foo xamante ni amul dara nga ni damay def département ba noppi dem defi ji. Euh, infrastructure mais doo njëkk infrastructure bu infrastructure pare nga def département tuddee ko département amul benn en fait amul benn pertinence ci man mais boo xoolee lan moo tax ñu def ko mais pour des raisons électoralistes parce que bu ñu laalee foofu dinañ laalaat carte électorale bi dinañ dem bërëb boo xamante ni peut-être ñoom côté bi amuñu fi woon doole côté bi amoon nañ fa doole buñ ko xaajee seen doole boobu noonu dañ koy tas mën nañuy def ay calcul mais benn calcul rek nañ mën ta def laaj ko Abdoulaye Wade ba muy laal Sangalkam dem Thiès tas ko parce que période boobu xamoon na ne mënul gagné Thiès mais terewul ba mu demee élection mu wax fee jóge daf fi jóge. mais justement euh, fii gars yi di gisee ne dañoo war a euh, <coughs> fii gars di wax injustice la ñuy gis nañ ne en 2011 euh, la principale victime c' était mm-hmm. Omar Gueye. nga xam mm-hmm. ne tey jii moom mooy le ministre des collectivité territoriale tey jii ni moom ñuy ñu ko nit bu bari mënul kon lu baal mooy moom il était victime waaye tey jii mel na ni revanche bëgg a jël. ba sax am na ay côté yoo xam te nii si wàllum Bambilor moom la bëgg a jël ay village yu am solo si Bambilor ndaxte tamit li muy am si entreprise yu fa nekk yooyu yu ma solo juróom yóbbu ko si Sangalkam tey ji tam loolu est-ce une incohérence pour régler une incohérence mais au-delà sax de euh, affaire tey ñu mun ko nangu ah, mooy affaire pécuniaire beeg hmm. entreprise yeeg euh, li nga xamante ni dafa war dugg en terme de recette hmm. lu ñuy régler du lenn lu mbiru élection hmm. comme ni ko Abdoulaye Wade defee woon si jamonoy 2011 boobu ba defoon victime ki nga xamante mooy Oumar Gueye parce que ñoom bu ñu gisee dañuy def Macky Sall moom du dëkkul loolu ci sondage chaque instant dañuy def sondage xool ni fii seen popularité lii la fa. dëkk bii nii am nañ fa benn leader boo xamante ni mais leadership am ci arrondissement bii la yem. te ñun suñu mbir bi dafa yaatu jàll na arrondissement boobu. donc lan nañu mën a def écarté euh, éclaté euh, éclaté éclaté zone boobu en 3 ba 4. wàññi dooleem wàññi dooleem parce que bu ñuy perdre fii nii au moins sax. ñu bañ a perdre yenn écarts yi ñoom loolu la ñuy liggéey en fait mais li ma la wax leneen nañu mënta contrôler mooy population bi mhm. parce que man bu may dégg le plus souvent dañuy naan Macky Sall Macky Sall lii la force Macky lii la mais bu ñu fàtte ne le pouvoir peuple moom moo ko yore mhm. lépp lu ñu mën a teg en terme de stratégie askan bi bu ñu génnul dem voté ji voté leen du ñu am dara ci lu ñu bëgg donc ñoom ñi nga xamante ni dañuy nekk ci ku jég ak ñi nga xamante ni dañu bëgg soppi fii li fi li fi li fi de nañu fexe dem ci askan bi xamal leen lan mooy seen responsabilité ba ñoom ñu xam ni ñoom ñooy le véritable pouvoir du Macky Sall mooy toog di calcul di naan bu ma daggee fii nii dagg ko nii daggee ko nii daggee ko nii dinaa am élection yi bu ma demee dinaa gagné parce que moom mënul toog di te demul ci élection élection yooyu nag sénégalais yi ñooy gën dem voté ji donc ñoom nañu xam ni pour des raisons objectives comme ni ma ko waxoon sànq nañuy fal ay nit di ko jaarale ci ay profil te ñu xam ni politique loo mënti teg ay stratégie stratégie kase la mën a doon Abdoulaye Wade bu nekkoon stratégie du fi jóge def na fi lu ne mais Macky Sall lan lu muy def nii yëpp fan la koy jëlee moom moo nekkoon directeur campagne Abdoulaye Wade élection yu gën a doy waar ci Sénégal moom moo ko nekkoon directeur campagne am mooy c'était en 2008 Abdoulaye Wade muy génn ak chiffre am boobu noonu Macky chiffre yi la génne waat deux mille deux mille dix neuf bi passé. amul lenn lu ci changé. lan moo taxoon Abdoulaye Wade taxawoon ni leen boo leen demee élection daañu leen duma. parce que ñooñu la joxoon stratégie boobu. tey jii lan moo tax PDS ak yenn kuréel yi nii fichier bi tant que mi ngi demee nii ku dem élection dañu lay duma. parce que xam nañu secret parce que ñoom ñoo doon toog di ci waxtaan di xool nan nañuy defee ba contourner yenn mbir yi donc ñeneen ñi nga xam ne dañu nekk ci bi continuer di sensibilisation kese moom la fi dese Thierno Diop question là banlieue nga dëkk donc yow au delà de analyse bi si mën a def looy dund amaana am na si euh, bu ñu xool la zone de yëmbal am na ay yëngu-yëngu yi tamit ni ma ko junjee sànq Bambilor ak yeneen gox yi fii nii si Ndakaaru am nañ ko jàngatee lu bëri ndax yow jàpp nga ne euh, ce redécoupage là c'est véritablement loo xam ne nii mën na tax harmoniser euh, gën a indi cohérence si collectivité territoriale yi fii si Dakar. jërëjëf man keroog déglu naa directeur général bu ANAT mu joxe seen raison ñoom tamit mun naa comprendre kaaw Kër Massar parce presque man zone boobu laa dëkk bon xam nga léegi nag ça pose problème tey ay fin nga engagé ay réformes ñëpp ne da ngeen di politique acte trois ab yi politique rek lañ ci jublu xoolal boobu dafa am benn fin bu ñu fàtte. ñu def loo xam ne ay particularisme la ci Thiès Abdoulaye Baldé fa nekk boobu nekk kàngam kii sax autant pour moi Ziguinchor Thiès Idrissa Seck Dakar Khalifa Sall. Mhm. ma xam nga mënoon dëkk doon am coow boo fàttali ko et mooy fi nga xam ne nii ñoom fa la ñu amoon ay adversaires yu leen jaaxal. voilà après en un temps record ñu faire passer affaire boobu avec leur majorité mécanique comme lettre à la poste waaw toogaat ba ay ñaata at rek juróom-ñaari at ñetti at ñu encore benn réforme. mais li gën a scandale sax mooy d'abord balaa ñuy wax ne découpage maire yoo xam ne ils sont illégitimes depuis. vraiment at. deux ans deux ans. ils ont reçu une avance sur paradis daanaka parce que falu nañ ba jeexal ba pare après am benn. 2019 la seen mandat waroon am benn bu grave ñu tegal ci. ku nekk daanaka exercer nañ ci ñoom deux mandats loolu du lu ñuy caaxaanee ci démocratie alors que vous aviez le temps étudier lépp ngeen def ko. ba y a eu des précédents avant même Ablaye Wade socialiste yi bi ñoom tam. créer Dakar 45 euh, nu mu tuddati communes ñu am fi 45 coordination curieusement mu tombé noonu nga xam ni dafa am ay relents politique Abdoulaye Wade tam président Abdoulaye Wade même chose ironie de l'histoire président Amar Gueye bi nga xam ne moo doon la principale victime boobu mu porté waat affaire bi mais bi yoon nañ def ndànk nag man li ma ci tiital yëpp mooy affaire foncier bi parce que moo nekk en toile de fond te xeex bi moo tax man duma ci dugg 100 pour cent am na maire yoo xam ne man du ñu ma entraîner seen xeex parce que suufu Dakar yëpp fa lañ ko jaayee daal am na lu ñu fi def du ma ne ñoom ko jaay. mais am nañ ci part de responsabilité. non ñooy principaux responsables yi du ma ne ñoo ko jaay mais ñooy principaux responsables yi waaye man un Ndiagne Diop du ma entraîner ci combat quand même dañu waxante dëgg rek quoi. parce que les torts sont mooy maire Bambilor c'était le bras droit de Omar Gueye. waaw si jamono jooju. waaw kay Malika bee fa dëkk ak affaire demee noonu ay yëmbal yooyu. président Macky Sall 2016 dafa taxaw conseil des ministres décembre je crois mu ne fii arrêté leen ba tout toutes les constructions ñu def ci enquête da gis rapport ba tey foofu tey ñi ko jàpp salfaañe mais munoo dëkkoo fa moo tax maa fa dëkk boo fa demoon xam yaa combien de nouveaux riches ñoo xam ne ni xëy na mille bi la di falu da dem leen di may paas bu jugee yëmbal pour dem Kër Massar tey kenn xamul alal ji ñu yor fu ñu ko jëlee lépp c'est en lien avec affaire bi nii donc pour man la ñu war a gën a gis nga dama lire journal populaire en 2008 muy alerté benn rapport union européenne ñu ne Sénégal ba matul affaire foncière moo koy taal man na ñi lu ñuy wax ni fekk sama niveau d' information moo ci eggul tey jege nañ ko de foo dem rek gars yi affaire suuf la ñuy wax foo dem rek affaire suuf donc découpage bi na réglé waale loolu de manière définitive mais pour man ça appelle de large concertation nañ bàyyi nañ dépolitiser affaire yi pour man tardé gul quoi parce que ma tiital tam ñiy xeex am nañ xaalis jaay jàpp suuf si jaay ba doyal am nañ xaalis parce que dama leen ñëpp xam nga boo xoolee ñoom ñëpp waa APR lañ loolu ñiy xeex ñu bëri waa APR lañ mais yi xeex foncier bi yëpp ay waa APR lañ donc ñoom ci waaw Macky Sall la ñuy wéy mais dafa am ay intérêt ni ci suuf yoo xam ne du pour euh, les populations yi fa nekk mais pour seen intérêt personnel la donc tey comme affaire bi dafa sensible hmm. moi je voudrais que le président Macky Sall fort de son décret de sa signature mu appelé à de larges concertations loolu la charte yi wax. lu mel ni balaa impliqué sax opposition bi loolu yaatu ñoo ko war a def ak askan wi. société civile bi. Mhm. les marabouts les chef coutumiers ñëpp. l' l' administration. ñu waxtaan ci affaire foncier bi. réglé ko pour de bon parce que dafa am un lien entre redécoupage bi ak affaire foncier bi. Mhm. te affaire foncier bi moom ci gën a tiital Sénégal foo dem tey waxu suuf la ñuy wax damay ragal nag mu am effet de généralisation. xam nga ba kii gii may Saña am na fenn fu mu dem di lijjanti affaire suuf mu xeex fa. ñani léegi loolu mu ngi bëri phénomène yooyu pour man nag ki nga xam ne mooy Lengue mooy président Macky Sall war na ci àddu de manière définitive. Hmm, d'accord euh, en direction des prochaines élections territoriales yi nga xam ne ñu ngi ko jàpp en janvier deux mille vingt deux euh, ñu bëri tamit dañuy kii naan doole Ndakaaru bi nga xam te ni taxaw Sénégal am na ko. de Khalifa Sall ak ñoom peut-être moom mooy euh, justifier politiquement yenn réforme yu si bëgg a def mais ni nga gisee nii configuration bi ak tamit euh, ñàkk déggoo bi nga xam te ni koy tàmbalee nemmeeku euh, même bu nekkee Barthélémy Dias bi dina ko mais ñàkk déggoo bi ñu tàmbalee nemmeeku si biir taxawu Sénégal ndax jàpp nga ne loolu mënul affaiblir tuuti taxawu Sénégal biir Dakar. mais évidemment parce que tey jii pouvoir bi tey dafay jouer le jeu de la division. Mm-hmm. moom tey jii cherché wu lu dul dem si nopp Barthélémy di ko gëmloo que ni. sant taxaw Sénégal wax nga mën a doon maire dem ci taxaw Sénégal di ko gëmloo que ni Barthélémy Dias dafay wane aussi que Khalifa Sall waratul doon leader am c'est-à-dire ñoom loolu lañuy jéem a fexe ba mu créer benn ay divergence ba ñoom li nga xamante ne mooy seen union bu doon nekk seen force nekkoon seen force ba ñu am yenn chiffres yi union boobu mën a mën a mën a mën a mën a tas éclaté wu. mais tey euh, boo xoolee li nga xamante ni mooy homme politique yi ñoom aussi quelque part man dinaa leen parce que homme politique amul ego dafay xaw a das ndax munoo ni Mouhamed da nga am mbëbët ci Sénégal nga ni yow gis nga ni Sénégal nii muy doxee wax na mën a am dox boo xam doxalin boo xamante ni moo gën nga créer sa parti politique ba noppi ngay dem ci ginnaaw Alioune di toog ci ginnaaw loolu dafay poser problème donc autant nga dem euh, directement ci ginnaaw Alioune te bañ a euh, créer sa parti politique donc ñoom bu ñu nangoo ni ku nekk dafay am ay euh, ambition am muy ay ambition yu sen man dama leen koy accepter mais nañu fexe ba élection yii di ñëw parce que élection yi baromètre la war a doon élection yi moo war wane yoon ki nga xamante mooy président Macky Sall ni ko sénégalais de ànduñu ci sa projet bi nga xamante ni bu nekkee da nga ko xalaat da nga ko teg ci suuf parce que gis nga ni ñu la dumoowee ci local yi boo demee aussi ci législative noonu lañ lay defee boo demee présidentielle dañ lay humilier autant nga bañ fa de côté di xool intérêt particulier mm. mais bu ñu fa demee Macky Sall da que division lay créé. mais candidature bu Barth est-ce que c'est légitime. bon légitime ou pas yaakaar naa ni aussi euh, war nañ ko ko mën a accepter d'après moom explication yu mu jot wax parce que aussi bien que man am naa ci ay quelques réticences mais maire boo xamante ni def na ay preuves mhm. au niveau de Dakar. Mhm. bokk na ci maire yi nga xamante ni vraiment seen population dañ leen gërëm parce que da ngay naan surtout contexte Covid bi. Mhm. gis nañu taxaw bi nga xamante ne am na ko ci biir ci biir ci biir commune am bien que commune am nañ ko commune boo xamante ni nit ñi du du du. sonn ñu waaw ñu yenn sonn yeeg wute na ak yeneen communes yi mais au moins taxaw na taxawaay bi wax. Mhm. loolu dañ koy rafetlu beneen bi mooy c' est quelqu'un koo xamante ni a été toujours courageux am ay conviction gëm ko quitte que sax parfois mu koy indil ay problème donc ne serait pour loolu rek. mais ville de Dakar war na mën a am maire boo xamante ni dafay savoir faire en fait di affirmer son leadership par rapport ak li nga xamante ni mooy pouvoir exécutif bi pour mën a fexe ba Dakar ñuy sauvegarde intérêt parce que Dakar aussi intérêt bi nekkul souvent intérêt yi nga xamante ni mooy exécutif donc il faut que Dakar am ñoo xamante ni vraiment dañuy taxaw pour intérêt Ndakaaru taxaw aussi pour intérêt ville de Dakar donc côté boobu mën naa nangu ni profil am profil boo xamante ni bu bu bu bu bu bu intéressant la mais beneen côté bi aussi mën naa jàpp ni wax na mën a demee ci concertation. ñoom ñëpp ñu toog ci même table. ñëpp ñu am lu mu tudd ambition nekk maire de Dakar. toog waxtaan ñu toog ku nekk wax sa proposition. si seen biir dinañ xam proposition bu ci gën. parce que mun nga servir Sénégal mun nga servir Dakar sans pour autant nekk au devant aussi. mën nga nekk ci ginnaaw Mouhamed nga jàppale ko ba moom li mu bëgg ci Ndakaaru moom mu am ko te yow doo doon doo doon maire bi keneen aussi mën na def noonu ñoom bu ñu toogoon ñoom ñi nga xamante dañ ne ci ko jege ñu ni ñan ñoo bëgg doon ay candidat ci ville de Dakar ñu ni ñun ñii la ñun leen yéen ñii dañ leen di xool tegal leen ay critères yu objectifs lan ngeen fi jot def lan mooy seen représentativité xool aussi seen base affective nan la toll buñ ko xaymaanat xool ni Barthélémy Diaz moom moo leen gën kawe ci yooyu yëpp mm-hmm. moo leen raw ci loolu yëpp ci critères yi leen tegal yëpp mais boobaa ñoom ñëpp ñu ànd ak moom jàppale ko pour mu doon maire ville de Dakar parce que symbole la ville de Dakar bii di capital lu Sénégal mm-hmm. opposition jël ko mm-hmm. donc loolu vraiment approche bi wax nañ ko mën a changer mu bañ a doon benn nit bi toog ci télé di def auto glorification bien que am na lu ko lu bu ko neexee def ko parce que liggéey na mais mu doon ci base yoo xamante ni daal ñu gën a euh, fësal concertation gën a privilégier concertation man moo ma gënal parce que aussi war nañu mën a euh, Mouhamed sa liggéey bi ngay def nii doo xaar kenn di la ci di la ci di la ci jaajëfal parce que sa liggéey la. Mm-hmm. de la même façon maire bii liggéey aussi warul taxaw di glorifier wu naan liggéey naa parce que da nga ni fal leen na mm-hmm. ma administrer leen seen seen seen seen territoire. Mm-hmm. donc nga ñu fal la nga administrer territoire ba noppi waroo taxaw taxaw di liggéey naa def naa lii def naa lii def naa nii def naa lii boobu noonu moom waroon nekk règle mais bu demee bay def loolu c'est parce que exception au Sénégal mm. maire yi liggéey dañ leen di compter ba mm. kuy liggéey day taxaw naan damay liggéey donc vraiment daal je crois que ni Barthélemy am na ay ambition yu saine mm. war na ci mën a war na ko mën a atteindre ci kaw ñu jéem a xool approche bu différent approche boo xamante ni ci concertation bi la ñëpp ñi nga xamante ni dañu bëgg a doon maire ci opposition bi ñu teg ci table parce que aussi ku nekk xam nga sa bopp ah. bu ñu toogee ku nekk bu waxee dañ leen di kat sëñ bi lii nga bëgg baax na mhm. mais boo xoolee da nga am ay ay ay limites yu objective mhm. limites yi ci sa base affective la limites yi ci sa expérience la limites yi ci sa lii la ci sa lii la moom dina ko accepter en toute humilité et puis jàppale ko ñu ñu ñu ñu dem seen élection de Khalifa Sall. non je pense que ni am na bénédiction Khalifa Sall parce que Barthélemy ak Khalifa moom yaakaar moom mu am divergence seen diggante peut-être ñeneen ñi mën nañu am divergence yi mais je pense pas que mu am divergence seen diggante parce que aussi euh, Barthélemy waroon na mën a créer mouvement am comme ni ko gars defee. wala mu jéem a def leneen mais booba tey bu nangoo boot ci ginnaaw Khalifa Sall bien que ni ñaari personne la yu tempérament yu wuute mais aussi trajectoire bu ñu wutee rek tempérament yi foog ñu wute mm. du ñu morom kii mag la kii xale la dañ leen koy dañuy seen différence boobu noonu yaakaar naa ne sax euh, plus la si ñoom ñaar je pense que xalifa lii Barth def même bu ci àndul du ko du ko du du tax daal mu doon ay mbir yoo xamante ni da leen di sori parce que aussi nit ñi war nañu mën a ànd bien que am nañ ay divergence d'opinion wala ay gis-gis yoo xamante ni xaw a la mais li nga xamante ni mooy seen objectif ñoom mooy seen taxaw Sénégal boobu noonu mën a jël réew mi seen taxaw Sénégal pour mën a jël réew mi aussi il faut ñu savoir faire leur euh, faire taire leur divergence mhm. et puis euh, xool intérêt bi nga xamante ni mooy seen intérêt euh, général te mooy intérêt particulier Thierno Diop Bart à Dakar waaw kooku de lu bëree bëri ay yu bëri question ci ci ci werante bu mu commencé mais dama bëgg a rappeler benn question boo xam ne affaire principe la euh, je crois que la ville de Dakar n'a jamais été autant agressée que sous Macky Sall. et elle n'a été jamais autant défendue que par Barthélémy Dias. loolu tam dañ ko gars jël quoi en compte parce que boo xoolee départ bi du moom rek moo àndoon Khalifa Sall. ñu bëri après def nañu ay volte-face dem ànd na nguur gi donc moom moo incarné mooy le visage de la résistance plus que Khalifa Sall même. xalifa lañu tëj mais ki nekkoon ci terrain bi di xeex dëgg-dëgg c'est véritablement Barthélémy Dias maa ngi fàttali ko may nekk Dakar ak xam nga souvent comme bu ñu daan def nii émission am na kuy bind à côté quoi. ay kii waaw ah, les reprises. waaw mu ne am lu mu wax magistrat yi bi ñu tëjee xalifa Sall. ma ma segg ko loolu ber ko ci lañ ko arrêté. <laughs> kon yow yaa ko jàppaloo. daanaka <laughs> <laughs> su ma déggee. su su ma déggee pour wax la li mu ko jaraloon. et puis de tout le temps gis naa lu bëri moom daf ciy taxaw ak principe sous ce rapport rek man je crois que war nañ koo jàppale parce que li gars yi def fii tam diggante 2012 ba tey ay 2014 ba tey dafa bëri loo xam ne dafa waroon démocratie uniquement rek pour écarter Khalifa am na sax phrase bu ñu prêté président Macky Sall nee xaw ma moo ne gars yi kee ñu weñ loxo yi bu ngeen gañee di ngeen xam xaw ma ndax moo ko wax wala wax parce que dama ko lii rek. mooy jamono ji je crois que bu léegi nag dafa am question mooy posé xanaa bu ñu nee candidature Barthélémy Dias dafa fekk xalifa nekkul candidat xëy na qu'est-ce qui empêcherait Khalifa Sall d'être candidat. mais moom moom nekkul candidat wax na c'est que Pape xam nga tënk nañ ko ci côté droit. non pas loolu sax moom keroog waxtaan mu seq pap Alé Niang. waaw loolu moom boolee ko sax. si ay non posé. Mhm. lu tax boole ko ci ay plan est-ce que moom tam nekkul dans une démarche parallèle de négociation souterraine avec le pouvoir. loolu tam question bu ñu mën a posé la am question bu ñu mën a posé la parce que boo xoolee xalifa Sall position am ci yenn question yi souvent radicalisme moom dafa des xam nga. Mm-hmm. bon et puis am na yoo xam ne dañ koy. jël am posé wu sax question ndax mu ngi opposé wu dëggantaan. non voilà te même Barth sax day wax loolu. nii Khalifa Sall di opposé woo moom gisee ko noonu. non parce que nag li kii wax la Khalifa ak Barth bokkuñu formation moom xam nga li ñaan euh, nu mu tuddati nga baal mooy ci wax ji quoi. mais noonu lañ ko mën a waxee pour ñu comprendre ñu mhm. politiciens yi dafay mën a sang néew xam nga koy sang néew day tëj gémmiñam mhm. du wax ñoom noonu lañ mën a def ko maanaam mën nañu xam secret garder ko quoi ba doo leen xamal dara mhm. donc exclure ma ko ah mu nekk ci démarche de négociation loo xam ne nag comme bi moom xale la dafa nekk ci senso du arrangé bi parce que ni mu waxee ci Sen TV nag ak ni muy waxaatee après dafa mel ni bi mu def 2STV da doon rectifier absolument li mu njëkk wax laa jàpp dafa narge Khalifa Sall ah. nga jàpp si nga ñàkk si jàpp ma damay dem loolu la wax la moo tax mu war a waxee noonu loolu jaaxal na ma. parce que je crois que quelque part est-ce que ragaloo parce que envoyé nañ ko IGE. Hmm. booy traîner ay casserole xam nañ Sénégal da ngay victimisé wu. Hmm. la envoyé IGE. Hmm. nga xam ni gars yi dañuy ñëw xool sa gestion. laata ñuy génn ay mbóot. nga taxaw ni dama bëgg doon candidat. pour bu buñ la daanee. nga ni parce que dama wax samay ambition ni dama bëgg doon candidat ville de Dakar moo tax ñu yónnee ma IGE moo tax ñu génne ay mbóot nga commencé victimiser wu démarche la bu politicien Sénégal di def au Sénégal mais def naa affaire Adji Sarr bi léegi yàgg na de moo xam mooy man ci jamono Adji Sarr bi toog benn kilifa mu ne ma Barthélémy est candidat à la mairie de Dakar mu njëkk ma ko wax boobu noonu quoi et que alliance bi am ak nii ay Sonko yooyu ci ñoom la yaakaar kon mën neen xaar benn alliance entre Sonko et Khalifa Sall déggal Sonko et Bat pour la mairie de Dakar Dakar si local yi ñu ci local yi nii loolu jàpp ko ñoom ñaar mën nañ def alliance en direction des locales léegi loolu dafay écarter Khalifa ak mouvance am parce que Khalifa du fa des bul fàtte ne tam depuis 2014 donte élection yi. mën na jàpp jàpp ne loolu bokk na si ñàkk déggoo yi nga xam te ni euh, nemeekoo nañ ko fan yéen seen diggante ñoom ñaar. mais loolu laa lay wax nii parce que tey boo xoolee Khalifa dootul carte tam boo xam ne bu mu doonoon en 2014 wala 2019 dafa élection yi fi jaar yëpp dafa dañoo perte d' abord y' a beaucoup de mais même commune yi des dañ ko perte muy euh, après après à part euh, référendum la gars yi commencé jël yenn communes yi législative ci présidentielle. mais dafa am tendance bu dessiné wu mooy Pastef dafa am doole Dakar donc Barthélémy si on y met le poids de son nom ak symbole bu mu doon effectivement waa Pastef yi mën nañu ko soutenir mu dem. d'autant plus que sax moom xeexu Sonko bi dafa am taxawaay bu ci taxaw léegi nag mu des doon Khalifa qu'est-ce qu'il mijote Khalifa avec le pouvoir taxawaayam dafa bëri ay zone d'ombre mais Pastef njortoo aussi que ñu am candidat. par exemple Abbas Fall moom mooy le coordonnateur. non non non jàppoo avance par non batte bi fii nu mu soti moom affaire yi 2009 looloo amoon le PS à lui seul mënut a gagné Dakar l'AFP à lui seul à elle seul non plus mais dañu def ay accord damay jël Pikine kii damay jël Guédiawaye kii damay jël dakaar léegi genre alliance boobu mun na am après mais Barthélémy yi par le Pastef bu ko gars yi xeeb. absolument c'est une donne. léegi nag moo tax ma ne la affaire bi dafa bëri ay yu làqatu ci suuf daal. Hmm. yoo xam ne leeragul ko Pamata yow da ngay yi. non non non daw ba ci local yi <laughs> mais mais gis nga local yi euh, Mohamed mhm. euh, en tout cas Khalifa bien que mouvement bi commencé na perdre ci ay nit ñu bëri mais moom dafa am tout le temps cette capacité di renaître de ses cendres. Mhm. mais si nekkul tam si taxawaayam xalifa euh, finalement ñu bëri xàmmeetuñu ko woon son silence mhm. face à certaines situation même bu nekkee ne aussi dernièrement nee na dina jógaat pour xeex nangam mais. est-ce que tamit nekkul taxawaay moo waral fu mu toll nii moom ak ku mel ni Baat mu retourne à ñëw sur la même ligne. waaw taxawaayam aussi lu bëri da koy expliquer parce que xam nga nga yore sa destin en main. wute na tey jii ak sa mhm. destin dépendre des autres. Mhm. tey jii xalifa et condamné à négocier. Mhm. ak kii nag la ñuy wax. parce que xalifa bu négocier ak Macky Sall. bu négocier wul ak Macky Sall dina négocier ak keneen kii doon président de la République pour mën a retrouver waat li nga xamante moo éligibilité. donc vraiment loolu tamit Mouhamed. mën naa ko nangul nit. bu ñëwee man comme euh, quel que soit alpha damay négocier soit damay négocier tey wala damay négocier dans le futur mais autant ma négocier aujourd'hui bu nekkee man ambition yi nga xamante ne am naa ko ci Sénégal ambition yi dëgg la ci man bu nekkee man li may wax dëgg la ci man que ni buñ ma falee Sénégal dina juge ci tàngam dem ci naataange mais autant ma fàtte sama bopp def compromis nu ko Abdoulaye Wade defee woon ba créer parti ci période boo xamante ne benn parti amoon dem ci Abdou Diouf ndax ko ni ko man de defuma lu dul benn parti boo xamante ni de contribution la du ma nekk mu parti opposition. mais baal ma dëgguma la mais est loolu sax du gën a arrangé président Macky Sall par exemple bu nekkee ne en 2024 moom nekkul candidat te bëgg na néewal doole tuut Ousmane Sonko est ce que waxtaan na ko mel ni Karim Wade waxtaan na Khalifa Sall du nekk sa avantage ak moom nga xam ne dina euh, may ñooñu doole néewal doole peut être euh, Ousmane Sonko mu bañ a nekk le seul l' opposition. lu ma leer mooy Macky Sall euh, sànq Alioune nee na jàpp na day def troisième nañ day def troisième mandat mais man jàpp naa ne nekkatul si logique du troisième mandat. Mm. ci lu mu ne mooy saltel c'est-à-dire man dama falu. Mm. mais dinaa fexe ba Abdoulaye Wade erreur bu mu defoon. Mm. mooy c'est-à-dire fexe ba sa sa say arrière doo ko doo ko doo ko doo ko préparé man sama sama sama avenir sama futur dama koy préparé nan laa koy préparé mooy opposition bii di ñëw ëllëg. Mm-hmm. waxuma sax kii fal mais opposition bu ciy topp sax man dama koy préparé bu ma indee par exemple mel ni Idrissa Seck def ko sama candidat. parce que Idrissa Seck bu ñuy wax rek objectivement. Mhm. du alal du président wu institution boobu. du loolu moom moo ko yóbbu fa mu ne. ba mu koy jaral muy taxaw di tàcc. Mhm. Idrissa Seck dafa am obsession doon président de la loolu moom amul lenn lu ko mën a di Idrissa mhm. boo ko ni woon tey jii kaa ma def le premier ministre sax buggul. tant que joxoo ko ay garantie yu leer. te xool leen ñu fàttali ko discours am bi lan la wax. foyer religieux yi la njëkk gërëm te Idi. am na foo xamante ne bu si tollee. day jël ay nit ñoo xamante ni da leen di jël en témoin nit ku yeewu la. ñoxtu naa ni moom am na lu ñu waxtaan ak Macky sàll te bañ koy waxtaanee am na ñu fa taxaw ñoo xamante ni. amoon na ay garant ay garant yu leer la yoo xamante ni ëllëg bu kiiwee dina leen woo léegi bu fexee ba Idrissa Seck nar fee nekk mais boobaa ñan ñooy doon opposition Idrissa Seck dina ko jéem a indi Khalifa Sall dina ko jéem a indi euh, Karim Wade pour jéem a fexe ba ñi nga xamante ni. parce que gisuñu woon Khalifa gisuñu woon Karim Wade demoon nañ ci Sonko mais ñu dellu si waat ci Karim ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall boobaa daañu wàññi doole Ousmane Sonko parce que ñoom dañuy jàpp ni Ousmane mooy seen seule chose boo xamante ni tey ji wax nañu mën a fexe ba débarrassé wu de de moom parce que moom lu mu leen wax teel na leen ko wax bu ma faloo dinaa leen def li nga xam ne mooy euh, euh, reddition des comptes mm-hmm. ñi nga xamante ne dañ yoroon alal askan bi daañu wax nan nañ ko yoree contrat yi dañ ko leeral alalu askan bi dañu wax fi ñu ko dugg te ñoom ki nga xamante ni day traîner ay casserole mais il n'a pas intérêt di fal koo xamante ni wala di fi teg koo xamante ni ëllëg bii ñëw dina jéem a saytuwaat contrat yooyu ak alalu askan fan lay dugg donc je crois que ni Macky Sall mi ngi préparé euh, succession mais mi ngi préparé sax avenir u ñi Sénégal bi nga xamante ni ci wàllu politique la dina am ñu muy jéem a te loolu laa njoxtu ci dossier Adji Sarr bi bu écarté yi ñu mu bëgg écarté non man gëm naa ne pare guñ si xaaju guñ si pare Macky Sall wax na leen ko dafa reculer pour mieux sauter te am na mbir boo xamante ni amoon na fi euh, ñu bëri xam nañu ni sax du fi amaat moom bii wax di naan li fi xewoon du fi xewaat waxul en terme de événement yi gase mais en terme de couverture médiatique li fi xewoon du fi xewaat hmm. Macky Sall bañ ci génnee lan la def hmm. ñaata patron de presse de recevoir hmm. donc li fi xewoon nga day réguler aussi yi déggoo ma la li fi xewoon moom mi ngi koy préparé du fi xewaat bu événement yooyu amaatee couverture médiatique bi du amati te couverture médiatique bi bu amul mais nit ñi du ñu mën a xam bay def ni ñeneen ñi parce que ñu bëri dañuy def parce que gis nañu nit ñi def nañu boo toogee ci télé nga dégg ñun la parcelle ñu ngi taal yow nga dëkk Colobane am autant de problème que waa parcelle mais est-ce que doo ni xaama def ni waa parcelle yee boo déggee ni waa parcelle def nañu waa Colobane def nañu ñeneen dañuy jug def nga dégg waa Saint-Louis ak ñeneen ñoom seen principal problème tey ji mooy fexe ba lii fi amoon en terme de couverture médiatique doot fi amati. Mhm. bu njëkk ba caravage la woon xam nañ caravage bi doxul. Mhm. mais léegi carotte bi lay génnee. mais ndax jàppoon aussi c' est une manière de dire que euh, peut-être déglu woon ndaw ñi ba ñu mari génn léegi dinaa gën a déglu ndaw ñi ba li fi amoon doot fi amaat. bu déglu woon ndaw yi ku leen déglu woon dégg <laughs> bu déglu woon ndaw yi. du jënd benn avion de commandement. waa jënd na tey jii sax communiqué woon na ne ko. dëkk boo xamante ni voilà dëkk boo. rek dafa yàgg bee dafa xomaataa dafa yàgg. waaw xam nga moom bu nekkee prestige ma ki ay affaire moom du ci du ci hésité mais euh, euh, dañ koy waxtaanee parfois sax ba koy banaliser. da ngay dugg ci réew bi am problème de référence di rey suñu ay suñu ay sœur. da ngay ñëw ci benn l'hôpital benn sante de santé bu ndaw nit ñi dañuy war a matu bu ñuy matu. benn ambulance moo fay nekk te hôpital régional dafay nekk euh, ak village minimum soixante-dix kilomètres ambulance bu ñëwee dañuy obligé par ordre d'arrivée la ñuy jël kenn ki bu demee dellu si le temps kenn ki di accoucher di dellu si kenn ki ñàkk na bakkanam donc situation yooyu Sénégal ne ci yow ngay jël ay avion de commandement situation yoo xamante ne xale yi dem nañu ba jaaxle bay dugg ci gaal di naan Barça wala Barça parce que yaakaar boobu noonu amatul ñu gis ko ci événement yi. dem gis ay ndaw. man loolu moo ma ci gën a interpellé ay ndaw taxaw ni waxuñu seen web dañ koy aar de waxuñu seen TV dañ koy aar de waxuñu police ak gendarme dañ koy aar dem ba ci pare foot ni pari foot bi dañ koy aar mhm. ñu leen lan moo tax ngeen di aar pari foot ñu ni au moins fii mooy dekkil suñu yaakaar mhm. saa ñu xëyee daañu jël deux cent francs dugal ko fi di yaakaar ni war nañu mën a am mille francs wala deux mille francs donc ndaw yooyu noonu bu ñu demee ba désespéré ba seen seul espoir bu leen dese benn alternative kase la mooy jeu de hasard <coughs> ndaw yooyu noonu tey mënuñu nekk ci condition yi yu amoo looy def lu dul jël ay dizaine de camion euh, camions de di ko commandé. Mm-hmm. di recruter ay auxiliaires sa ak gendarmerie. Mm-hmm. teg ci avion de commandement. donc je pense que ni Macky Sall nekkul di déglu wala en tout cas buy mm-hmm. déglu tamit dégluwul li nga xamante ni mooy préoccupation askan bi faj boo feebaree la lekk boo suur boo boo xiifee la mais ndaw yi am xëy lan nañ jot def xool université Assane Assane Assane Seck bu Ziguinchor ñi ngi koy ibbi mais boo demee fekk travaux yi toujours en chantier Amadou Makhtar Mbow bii nga xamante ne waxoon nañu depuis 2014 xam 2015 waxoon nañu ko pare. université Sine Saloum. Mhm. Cheikh à côté stade boo xamante ni 156 milliards aussi ñu jox ko ay turc stade bi nee nañ la deadline bi peut-être 2022 la. Mhm. dina pare. Mhm. waaye léegi entre xam-xam ak espoir ban ngay jël. ñaata stade la fi Macky Sall jot a ba mun falloog léegi. ñaata université la fi jot a def. ñaata stade la fi def ñaata hôpital la fi jot a def donc loolu rek dalay wan ni que moom dafa def choix dans l'investissement te choix boobu ne du choix bu fortuit choix bi mooy di ngeen fecc di ngeen làmb di ngeen concert mais doo leen feebar ba faju boo leen feebaree ngeen dee doo leen xiif ba lekk boo leen xiifee ngeen jàll ci gaal gi ngeen dem doo leen tàggat seen bokk bu mën a am masse critique bu fort parce que du ma nangu ndax lii may def boo leen yewwoo ci biir pale bee ngeen may fekk donc je crois que vraiment bu déglu woon askan bi du doxalee nii muy doxalee mii moom mii ñeneen ñëpp Macky Sall di dawal oto bi jar un milliard rek problème la hmm. problème la Sénégal te léegi vraiment dañ koy wax sax dañ ko banaliser de telle que choqué kenn un milliard ci réew boo xamante ni sëñ bi charrette nañuy transporter ay malades interurbain bi car rapide yi mais nit ñi dañ siy dugg sax duñ si def attention chaque jour ñu ne la nit faatu na 2017 ak 2020 2020 euh, ñu ne la 3000 mille personnes ñàkk nañ seen bakkan maanaam boo koy xool en moyenne 3 3 personnes dinañ ñàkk seen bakkan par jour choqué wul kenn rien n'a été fait coronavirus bi ñu jël xañ ñu suñuy liberté xañ ñu suñuy lépp agression ñu ni lijjantiwuñu ko intéressé wu leen bërki dem il a fallu que ñu rey fi benn étranger pour que police mën a organiser rafale mm-hmm. nee nañ def nañu 300 xaw ma 200 et quelques 277 arrestation mm-hmm. mais pourquoi police nekk police boo xamante ne réaction la nag. tant que nit deewul ñoom du ñu organiser li nga xamante ne mooy rafet te xam nañu zone yi nga xamante ne mooy zone criminogène yi. Mhm. si des imbéciles yooyu noonu kan lay kan kan kan kan moo ko xamul. Mhm. ñan ñoo fa nekk étranger yi fa nekk ñan ñoo xamul lan moo fa xew. Mhm. mais lan moo tax tant que ñu fi nit tant defu ñu fi ñaawteef boo xamante ni sénégalais yëpp dañuy taxaw di wax. du ñu doogay organiser opération coup de yoo xam ne dafa waroon doon quotidienne bu demee way doon exception nga xam ne a problème dans ce pays. d' accord. Euh, question ma posé euh, Matar laa lay posé est-ce que gënul arrange le président Macky Sall mu seet waxtaan ngir contrer le waaw loolu mooy li ñoon am na ñu ko tuddee sax pôle républicain ne moom la ñuy togg ne dañoo bëgg boole Karim ak xalifa ak ñoom ñëpp ñu ànd pour en perspective de 2024 ñu écarter Sonko loolu am na ñu koy théoriser sori na sori na et puis dafay doon loo xam ne ni lu plausible la sax parce xam nga cell li mag du ay nelawam comme di olof Ndiaye Karim Wade nee cell moom tamit xam nga ñu naan xalifa Sall am na yu bëri ci noppi Karim Wade tam mi ngi ne cell lu tax mu ne cell noonu xam nga loolu peut-être parce que yenn saa mu kii nii rek xam nga dóor benn affaire xombal nii quoi dafa am sax benn jour lu ma def rek Abdoulaye Wade ci conseil des ministres ñu tuddee ko benn université le lendemain rek Karim Wade di sànni xeer bu mag yi noonu quoi mais xeer yi day du diis loolu quoi. nga xam ne foofu am na quelque part sketch toujours ci politique la xam nga politique moom toujours ay combinaison la Sonko tamit gis nañ ko fi muy jubale maître Moussa Sall ak Barthélémy Dias waaw ak maître Moussa Diop ak ak kii nu mu tuddati ak Barthélémy Dias bi ñu ko waxee mu ne réel politique la dafay du diine ci wàllu fajiri loolu la toog wax ko xam nga politique du diine loolu la wax dem na sax ba jël Seydina Omar di ko comparé donc man contre ma loolu ah c'est de bonne guerre quoi xam nga ci politique la y a des mais li am solo mooy comme ni ma waxee sànq mooy jàmm dëkk bi ak tam que les compromissions ne se fassent pas contre l' intérêt supérieur de la nation du ay waxtaan parce que kii sàcc na ñu war ko tëj ñu waxtaan ñu bàyyi ko wala genre yooyu wala mu nekk complot dañu tëju fii écarté Sonko bu mu bokk ci élection yi war ta demee noonu mais wax dëgg yàlla ñi nga xam ne depuis même France boo fa demee ay acteurs politiques dañuy teg ay alliance tactique mhm. stratégique d' accord pour mën a dépasser benn situation yàgg. véritablement temps yëpp Facebook maa lay ngay kaas. dafa am foo am jafe-jafe ndax dal la woon pour nga critiquer Sonko nga bañ. Euh, waaw xam nga du ma ne dañ ma woo pour ma critiquer Sonko ma bañ parce que boo nekkee ci waxtaan da ngay bàyyi ba ñoom ñu teg ay éléments ba dafa am lu ñaan euh, discrétion ak réserve euh, effectivement 2STV <laughs> yi. non il faut ma il faut parce que dafa débat ba fa toll. man de yenn saa du ma dañ ma jàppee kuy critiquer Sonko attaqué attaqué wu ma ko ñoo ko jàppee noonu rek comme ni may waxee fii rek laay waxee ci moom souvent dafay di jox xam ne il n'admet pas la mais war nañ xam ne xuux ñëpp la dàq man Thierno Diop nii ñi may seetaan nii xam ma 1997 jàpp la dàq la école torturé ci da ngay xeexal Sénégal lu bëri ci réew mi nii ñu bokk ci jaxasoo ci bu ñu koy tudd du ñu wax mais suñu loxo dugg na ci waaw dañoo sañ wax ci dëkk bi nag. mais xam nga ñoom boo bokkut ak ñoom xaar rek ñu lay saaga am na nag ñu defe ne li ngay critiquer Sonko nii ñoo kat mun nga nekk mercenaire ba defe ne yow mun nañ jël sa combat boobu changé ko woo nañ ma fa ma wax ñoom lu leer tant le débat porte sur le Sénégal comme ni ñuy waxee nii dama andi woon benn concept bu bees loo xam ne dafay laal ci géopolitique maanaam luy sooxee dëkk bi mooy concept histoire secrète boo commencé di def rek ci Facebook bi ñu bëri di ko suivre noonu xam nga Macky Sall par exemple bu taxawee ñu naan ay euh, nii dafa yi la jaar ba tekki may non professeur Abdoulaye Bathily wax na lii ci Vicar Magazine nee na moom maa tax Abdoulaye Wade nommé ko DG information boobu ñooñu amu ko wala ma génne Latif Coulibaly ci livre bi bind en 99 lii la wax ci CREI nee na CREI baaxut tey mu dem ba koy défendre donc concept la boo xam ne li nga peut-être information yoo xam ne ñu ngi ciy gërëmal nit ñi ma bëggoon ko fay défendre ba j'ai vu que apparemment xam nga bëgguma ci sori mais du ma exclure na ñoom li nekkoon seen bopp nit ñi ñenn ñi mooy mun naa attaquer Sonko man nag du def sale boulot su may attaquer Sonko c'est en toute souveraineté léegi nag ko bokk ci Sonko xëy na dégg na fu ma ko doon waxee. mu gaaruwaale xam nga sa affaire ak gars yi réglé ko may ko nag yow ma tudd El Hadj effectivement ne bu ñu avancé ma avancé parce que gis nga affaire télé itam dañ ko war a wax affaire média yi muy fonctionné c'est le service public de l'information suñuy télé la. bërëg dem ngeen ñëpp géy fi benn information ci Cheikh Yérim Seck mooy 300 millions yi ak loolu ivoirien bi wax man maa ko génn et je porte la responsabilité si di ko yëpp ci man lañ ko gisee maa doon déglu benn émission ci Béchir Ben Yemet ay témoignages ivoirien bi lu rafet lay wax ba egsi ci foofu noonu mais pourtant tout toutes les télé l'invite il raconte des bobards toog nañu seen télé seen plateau di wax ay protocole de Conakry li wax yëpp Cheikh protocole de Conakry non attends attends defal naa xaar parce que xam nga dëkk bi tam masaa bi dafa bëri man mii maa bind information coup de fil Macky ak Ablaye Wade jamono yooyu noonu man damay dem naa Conakry xam lu fa xew attention bu fay Seydou Dalein Diallo mii toog nañ waxtaan deux heures temps Conakry mais boo fi ñëwee naan ay deal ay protocole de Conakry alors que c' est sous l'égide de la communauté internationale ay chef d' état. mooy si présidentiel bi ay yeneen président la ay Assane Ouattara déggoo nga fi ñu naan kër Abdoulaye Wade bi dañ koy réfectionné xaw ma na yëngu nga information boobu ba benn président bëgg a joxe xaalis Macky Sall sax ne ko bàyyil loolu moo continuer mais tey xam nga yu mel noonu par exemple damay gis presse bi dañoo bëri ay complaisance ci suñu biir ñu nag on a fait d' autres études balaa ñu nekk journaliste passion moo ñu ci dugal mënuñu politique moo tax ñu nekk ci présent ah, pour am un cadre d' rek mais tey télé man am na télé bu ma wax foo xam ne du ñu parce que du may critiquer Sonko loolu laa jàpp te pourtant bii daan dem di xeex li may waxee ni même principe bi ci Khalifa Sall ak ci Karim Wade nii di défendre CREI di di contre CREI mais bi ñu xamee ne parce que agent journaliste yi dañoo war bàyyi di nekk dans des agendas politiciens te bu ñu dee ba si yàgg na dinañ commencé di wax ñu ni de parce que li ñu yëg bëri na. mais Thierno est-ce que amul métti. non non xam nga ça ma fait mal. Hmm. dañuy defar Sénégal. daf mel ni c'est un indigné qui parle. dafa métti xamoon <laughs> man j'ai des amis ci politique mais kenn du ci waxloo dama yi. sànq bàyyi naa la wax Marodi fa ñuy wax Marodi fa xam nga maa créé ak Pape Gorgui Ndong sama xarit ñoo ko créé toog na ci émission mu wax ko Sénégal mu ne ca maag Thierno Diop maag seen xarit bu tudd Thierno Diop ni mu ko waxee sax daf ma xaw a làq mais c'est ma réflexion du lu gars yi di wax ni nan Marodi fa Marodi fa du loolu de benn concept loon bu gën a kii mais du woon ay taal dëkk wala yooyu lu noobul loon boobu bi ñu koy wax parce que seen concert bi moo nekkoon ci léthargie ma andi réflexion mais tey ñu jël espace su débat yi télé yooyu ku nekk def ko sa télé bopp loolu tam du continuer de léegi ñun ci Facebook bi nag la am di fa xeexee parce que man je suis un journaliste journaliste dafay analyse ñu koy invité bi dafay analyse kon nu ma la invité nii. non dama ne la dama am yoo xam ne ay complaisance vous vous croyez que en France aux États-Unis dinañ la jàpp ci yenn affaires yi scandale yi interpellé ça n'est même pas un débat national loolu nga xam ne loolu am fii journaliste yi enrichissement bi ñuy am subit bii nii yooyu yooyu yëpp ay question la yoo xam ne dañu ko war sur la place publique. Ah, pourquoi la CREI. mais dafa nag pourquoi la CREI. man de bokkuma si. sur la CREI xaaral pourquoi moo la porter ci <laughs> yi. ma nekk petit journaliste la quoi. <laughs> boo demee France dafa am benn émission bu tudd les de garde. Mhm. mooy journaliste yi am nguur dañu ci def benn documentaire man journaliste yu bëri fii tam Sénégal war nañ egg ci niveau boobu parce que léegi dafa am problème atam loolu. les nouveaux chiens de garde bi dinañ sax téere. non man dama koy gis. benn journaliste dafay jël position nga gis publicité bi daw xool wuy ma publicité bi daw loolu problème la tamit ci dëkk il faut nag xam nga ba tey ñu ngi garder suñu sutura nii ba à un moment donné parce que espace public de débat yi waruñu ko xañ maa ngi wax Facebook xeebu ma kii quoi xeebu ma mhm. parce que véritablement su ma fay wax dinañ ma mais à un moment parce que lii suñu publicité la. dafa am benn marché publicitaire boo xam ne ñu ngi ciy bénéficié en contrepartie ils doivent s'acquitter du service public de l'information parce que c'est ce qui est consigné dans de charge dafa war a jeex quoi lii tamit benn dictature bi nii nga baal ma quoi mais j'en profite pour euh, ñi may seetaan vraiment du ñu nitu fitna xam naa peut-être nag euh, dañoo gor xam nga gor boo koy xas rek da nga koy jam quoi te comme ni ma la waxee justement ba ñoom dañoo jàpp ne journaliste yëpp léegi ay dañ la bokkal dara moo tax nga ko non ñu nous critiquons dans une démarche d'amélioration continue rek xëy na xëy na du mat quoi mais bien sûr moom am na ay qualité am na ay qualité yoo xam ne nii véritablement mën na tax ñu yaakaar ko comme mais nag bu amee ay défaut nañu bàyyi ñu koy wax parce que man li may critiquer président Macky Sall sax moo ëpp foofu li may critiquer Ousmane Sonko. véritablement. voilà ba pare léegi danoo toll ci benn jamono boo xam ne ni léegi chroniqueur ñooñu dañuy jël de l'ampleur léegi mun leen wax sax ñoom la ñuy gën a seetaan wala ñoom la ñuy gën a déglu que les politiques léegi loolu mën leen wax ne euh, c'est la vivacité c'est la euh, <laughs> nu ma koy waxee sax euh, suñu suñu suñu démocratie moom mooy dund mais est que amul tam beneen risque nekk ay mercenaires nekk nangam comme ni ko Thierno di waxee euh, kii. Euh, euh, mais effectivement parce que li muy wax nii dafay arrivé ñu bëri ah. si commencement wu affaire Sonko Adji Sarr bi. ba ñu tollee situation di analyser le fet que Sonko dem na wala warul dem. Mhm. ma amoon ay position ni Sonko waru fa dem en tant que mhm. kilifa ak li muy représenté. Mhm. mais immédiatement du côté du pouvoir dañ lay approché. mais si Pape Makhtar il faut nga continuer di acculer Sonko parce que aussi li mu def waru koo def man leen attention situation dafay évoluer fii ñu toll ci niveau d'information dañuy analyser war na dem wala waru fa dem mais bu lii jàllee dinañu lijjanti complot bu amee dinañu lijjanti traquenard bu amee donc les mêmes personnes yi nga xamante ne ñoo doon approché dina naan bravo parce que poser nga ay question wala soulever nga ay ay ay ay ay ay réserve par rapport ak euh, situation boobu noonu dem na wala warul dem mm. mais même personne yooyu ñooy waa di la saaga mais nga baal ma ñëpp ne woon leen mais la volte-face de Pape Makhtar comprendre ñu ko loolu dégg ko ñu ne ñu apporté peut da nga amoon benn position après les critiques ñëw nga nga changé <laughs> nga changé position loolu dégg ko dégg nga xamante ni euh, ñi ngi tout le temps ci surface yi du ñu dugg ci profondeur hmm. mooy li ma la wax léegi en fait sa à dire situation dafay évoluer hmm. tey situation sonk bi trois temps la ëpp na ko sax mais mën nañ jël trois temps première moment bi mooy première sortie bi mu njëkk def conférence de presse en tant que chroniqueur bu ñu la ñëwee analyser la ngay analyser mooy li mu jot joxe comme argument mais situation boobu dafay évoluer bu évoluer pensée du une du du dafay évoluer sa pensée aussi dafay évoluer nga amaat yeneen information yoo xamante ni dafay tax ba soit dafay conforter say convictions wala ñu remettre en cause say convictions moo tax nit ki li muy wax ci benn situation mën na doon tey. lu waroo ak li nga xamante ne da ko doon wax démb mais lool nag il faut que nit ñi demee intelligence bañ a demee passion ak ak ak yenn affaires yi dégg naa sax ñi naan wey da ko seeti dañ koo tiital dañ koo critiqué xam la nag lan mu wëlbatikuwaa defaat lii loolu boo si nekkoon ton man mën a toog sama kër parce que boo nekkee si place publique di am ay euh, point de vue di ko exprimer di ci ragal parfois ñu la ci insulté wala ñu la ci saaga mais autant nga toog sa kër parce que aussi lépp li ngay wax soit dina nekk avantage kenn ñu la waaw góor yow fi ne mais dina nekk ci ñoo xamante ni aussi dañ lay critiquer parce que li nga wax arrangé wu leen loolu boo ko comprendre wul rek yow sa liggéey dootul dootul mate mooy li nga wax ni euh, dañuy nekk actuellement di ñu jéem a pousser pour ñuy épouser ay point de vue te man loolu man vraiment damay invité nit ñi ñu nekk ci li nga xamante ni mooy seen posture bopp mën nga juum mais na doon loo xamante ni sa xalaatu bopp la man Pape Makhtar damay juum mais sama xalaat laay juumee du ma nangu tey Mouhamed yow nga influencé ma ba ma juum ci say juum de ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc vraiment comme ñun chronique mercenaire mais mais mooy indi mercenaire parce que déjà benn situation bu amee duñ la ko wax directement dañuy jël seen téléphone woo la ni la vraiment comme déjà vendredi bi nga xamante ni moom moo euh, vendredi bi le 8 mars la xaw ma vendredi la xaw ma période boobu daal benn le 8 mars c'était le lundi waaw euh, le dernier avant lundi bi dernier vendredi bi xam nañu nii dañuy def émission mhm. mais jour boobu presque après midi bi ku nekk woon na ma mais dañ lay ñaan dimbali ñu rek nga dalal affaire yi leen sëñ bi man daal lu ma wax kii rek laa lay waxal ñii di génn di manifester defuñu mhm. réaction la rek te pour dal am foog ngeen rétablir signal foog ngeen def li foog ngeen def li tant que loolu mi ngi am. bi nga seen signal dañoo coupé signalu Sen TV coupé signalu Walfadjri euh, commencé di intimider ay nit jël ñeen ñi ci kaso bi. mën leen tant lii mi ngi am bu leen ma wax dalal. bu ma demee ci plateau bi dinaa continuer di émettre ces mêmes critiques ces mêmes parce que aussi mënu ma toog di man nga may naan dalal alors que yéen nga xamante ni yéen fi une situation bi daloo leen. mais yéen tamit on vous ngeen di eh, eh, buux nit ñi pour ñuy génn. parce que li ñu def seen web def ko. Euh, parce que <laughs> non ñun ay live la ñu def ko kenn ku jël. xam nga <laughs> mais yéen ce qu'on reproché mooy euh, ba pare Bougane seen patron wala boog patron seen TV parce que xaw ma yow noo fa nekkee mais hmm. dañuy kii rek comme moom jamono jooju si xeex bi la bokkoon dañ ko doon soutenir de manière indirecte loolu tam reproché boobu dégg ngeen ko. mais xam nga xam nga xam nga gars yi moom bu ñu la bëggee salté dañ lay salté euh, yaakaar naa ne même guerre. maa ngi dégg comme li nga ko waxee Yérim Seck toog ci euh, seen mm. TV di wax li ko neex naan way yenn yi kenn waru ko couvrir xam la nag la nag la guerre dañ koy couvrir. absolument mm. la preuve tey situation bii xew mm. Palestine. Mm-hmm. mi émouvoir ñu bëri. mais ñu tete liggéeyu journaliste yi ñun mënu si woon jot. Mm-hmm. te ay xale nañuy rey. Mm-hmm. image yu ko gën a sensible mënul am. te pourtant c'est diffusé en temps et en clair. ñëpp di si jot. léegi ñun ñi ay lacrymogène ay pneu yi taal kenn waru koo diffuser au Sénégal. Mhm. ñoom ñooy kan. Mhm. peut-être li mooy les images sensibles par exemple nit ku nàcc loolu la ñuy wax. mais pas ay lacrymogène <laughs> déggoo ma la léegi Palestine bi ay xale yu ñu rey ñu téye leen nii nga gis ni kii corps sans sans vie la. ñu koy transporter ay néew ñu leen di transporter te pourtant dañ koy dañ koy dañ koy diffuser encore que. en toute responsabilité yaakaar naa ni Sen TV génnewul ay image yoo xamante ni yeneen image yeneen leen la wax yëpp mooy incité nit ñi pour ñu jël waaw xam nga loolu xam nga incité bi euh, waxin la rek parce que déjà ñoom ñu ngi sukkandiku ci seen euh, seen kiiwu Sénégal boobu di naan explicitement wul implicitement maanaam tey jii li ngay wax nii mën a leen explicitement donc dafa leer c'est explicité mm-hmm. mais leerul implicitement dañ ko dañoo njoxte da ngay def xam nga implicitement fu mu ne moom lu luñ la bëgg dugal dañ la koy dugal parce que li ngay def comme émission bu ñu la bëggee taxal dañ leen naan implicitement yaa ngi poussé nit ñi à la révolte loolu nañu def mais lu seen TV def 2STV def na ko kenn lijjantiwu ko DTV def na ko kenn lijjantiwu ko mais seen TV dañ ko def ak Walfadjri te ces deux organes yu ñu cité nii ñoom nañu waxoon tamit ci période 31 décembre ñu njoxtoon ni dañuy invité Ousmane Sonko ñu leen attention attention ARTP neen yoreel leen kii xaw ma 1 milliard kii xaw ma ñaata million mm-hmm. c'était pour leur dire boo leen dof dof loo ba invité fi Ousmane Sonko. Mhm. yow loolu laa njort. Mhm. dinañ leen indil seen redevance yoo xamante ni. Mhm. li ngeen war a fay RTP boobu ba tey fayoo leen ko. Sen TV jot na dund expérience ba mu invité euh, Ousmane Sonko fële ca fële ca 31 euh, décembre jox ko plateau. danañ ci teg coupé signal bi. ni ko xeesal nga fi waaw xeesal bi ñuy bi ñuy publicité ba euh, tey ñu koy publicité ci mbedd bi. yow nga yore bouquet canal di teg pornographie li jënti woo ko mhm. Sénégal non c'est-à-dire gis nga dafa am yoo xamante ni vraiment dañuy jéem mooy li ma infantiliser askan bi di leen def ay wax yoo xamante ni wax nañ ko mën a dépasser gis nga Mohamed mhm. dëkk bi mhm. na ñi nga xamante ni ay commentateurs nañu di commenter mais selon leur point de vue ñuy bañ a accepter ñu leen di influencer de quel bord que ce soit nga bañ ragal ñu lay saaga parce que saaga yee yooyu noonu taxul fenn mm-hmm. ñu am xalaat ak xel di xalaat di déglu ñoom daañ comprendre fi ngay waxee mm-hmm. mais boo xasee ba accepter influence benn personne mm-hmm. yow lépp li ngay jot def sa àdduna day biaisé parce que chaque fois di nga ragal ni ah man relation yi ma am ak diw bu nekkee relation yi dëgg la mais kooku war na la mën a bàyyi nga am sa xam-xam euh, euh, sa sa sa point de vue parce que nit ku nekk am na sañ-sañ am point de vue ci même kër am benn papa mais pourtant point de vue duñu yem mhm. est-ce que parce que yow say doom bokkuñu ak point de vue ak yow dañ leen di génne ci kër gi donc je crois ni vraiment chroniqueurs yi mii commentateurs yi mii ñi ñuy invité ñu tuddee ay analystes mhm. nañuy moytu influence yi mhm. Mouhamed am na certains journalistes ils sont immensément riches certains commentateurs seen richesse mënuñu ko prouver te dañuy flirter ak état du Sénégal oto yi ñuy dawal quarante à 60 millions lay jar <laughs> te puis ils se man bu ma doon dawal oto bi jax 40 millions duma ma liggéeyee nit. dinaa yore sama organe bopp. te pourtant ñi ngi fii ñu leen di wax ay nitu dëgg ay waxkutu dëgg. te xam nañu ni am na ñu ñuy critiquer am na ñu ñu dul critiquer. te loolu les sénégalais le savent. donc je crois que ni vraiment il faut que ñun ñuy demee. mënuñu tamit di critiquer politique yi ba noppi di def ni ñoom wala di def pire que ñoom. mais mais Matar baal foofu rek ma abonné. waaw par exemple. comme phénomène boobu quoi li ñuy wax ne désinformation l' information arme la désinformation désarme gis nga dossier Akilee man waa passé bi dañ ma koy tooñee xam nga da ngay dégg ñu naan kii waa waa kii la quoi la parce que dafa am dossier bi éclaté j'ai fait ma petite enquête j'ai que Matar Cissé pouvait être une cible mais après dafa am lu bëri lu ma ci xam nga fu may waxee est mm-hmm. loo xam ne dama ko ci jàng par exemple mm-hmm. mais pourtant dem nañ ba si gis ne signé nañ a scandale fuuf ko boobu noonu mais waxuñ ci xam nga entre loo xam ne ay cent et quelques milliards la koo xam ne Amadou Ly mi ngi jàngee Fayda tuuti ci jàng na fu mu war a jàngee nekk un jeune sénégalais am xam-xam ñëw pour servir son son pays ñu xañ ko ko jox ay israéliens. ba pare ci kaw loolu Samuel Sarr nga xam ne moom moo incarné fayitu si secteur boobu énergie depuis temps Ablaye Wade ñu jël teg ko ci kaw naan la privé national. d'accord léegi dañuy gis nga genre connexion yooyu conséquences yi muy andi mais loolu nañ ko moytu cest à journaliste bu neutre amut. léegi dañu dañu kii parce que temps bi jeex na. dëgg la dëgg la tak sànq ñu ngi wax ci presse beeg yooyu. Mhm. ndax yow par exemple le cas de Pape Ndiaye da ngay jàpp ne que euh, derrière cette affaire privée bi nga xam te ni da nga koy toppee mbirum escroquerie rek yooyu am na une autre volonté boo xam te ni bëgg nañoo régler yeneen compte ñu jaarale ko. suñu waaw ma ko exclure nag 100 pour cent donte ànduma ci démarche sam ci yenn dossiers yi ni mu ko taxawaay bi ñu ci amoon. comme ma la ko waxee quoi donc xam nga ci affaire Adji Sarr par exemple. man toog naa wal fajri boobu benn waaye ma xamoo dara Pape Ndiaye xam dara parce que moom moo exploité kii quoi certificat médical certificat médical ça ne suffit pas pour nga def rapport pour nga génn ci benn conclusion définitive il peut y avoir d' autres pièces dont certaines sous yoo xam ne génnul sax donc dafa tuuti dafa teeloon muy moom la avec Pape Alé am Ahmed Aïdara ñu teeloon def conclusion mais xam nga loolu moo embarqué gars yu bëri ba après bi Madiambal Diagne jotee kii Téléco je crois loolu tam dañ koy fàtte. Mm-hmm. ci saas rek dafa tudd Madiambal Diagne mel ni dafay faral Téliko seetloo bi ñu koy accusé moom tam tudd nañ ci Téliko ma defee ne règlement de compte la mais loolu nag rafetul ci réew ma lay wax rek xam nga sama départ ba tey sànq waxtaan ñun nawetu euh, daaw fii la ñu fekk xam nañu ardoise yi senn yëpp li lépp cheminement bi dañ ko depuis début bi la loolu yàgg ngay wax xool lii dafa yàgg sëñ Pape Matar <laughs> hmm. fii mu déw mi yàqoo ci nguuru Macky Sall xol yi dañoo tàng xeen yi dañoo bëri règlement de compte yi gars yi ngi defante ay xam nga hmm. alors que réew mi dañ ko war a pencoo wal fajri boobu ngay wax bi bi ñuy jàpp ndeysaan yàlla ko yaayam Sidy Lamine Niass a xam ne li mu liggéey ci démocratie tey ñu ñëpp bu ñu bëggee journaliste moom moo tax kenn defu ko ci mais dañ ko fii day jàpp di ko liquider ñëpp toog di seetaan ñëpp toog di seetaan après dañuy dal ci kaw Bougane donc gars yi nga xam ne ñooy liggéey ci pour la démocratie il faut ñu am benn jonction bi ba pare presse bi gën a donc véritablement maa ngi masaw sëñ Pam Ndiaye ci li ko dal mais tamit euh, mooy li ma wax sànq gis nga boo dee ay journaliste ak yooyu gars yi itam di leen moytu tabaski ñoom xar xar nit dina yar xaram te xont di def lu nekk jubluwu ci baax de tabaski la ci jublu loolu journaliste yi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax ku ci jàkku il ne faut pas te rater xamal fi ngay dugg xamal ki ngay wax ak xamal fi ngay kii. mais nag daal mën nañ am di la di la yor di la yor ba mu ma apporté ñu kii la. non non moo daal damay wax daal benn affaire booy digle sangu na fekk nga set. ni ñuy moytu bu baax a baax du ma nag yàpp justice quoi ne looloo tax forcément je respecte les institutions mais tamit bu dee loolu la tamit lu ñaaw la quoi parce que ce serait une arme non conventionnelle. d'accord et que même j'apporte ma parce que def naa ko Facebook boo may suivre bi muy xew man à chaque fois yooyu j'apporte ma solidarité à Sen TV boobu en son temps même 31 décembre boobu ngay wax j'ai apporté ma solidarité à Bougane parce que tamit euh, Macky Sall dafa rey li ñaan le privé national ci yeneen mais li laa war a suuli na bàyyi presse boobu sax tamit ñu nooyi dëkk Abdoulaye Wade dafa amoon intelligence boobu da ngay bàyyi rajo yi di wax ak télé yi ak Seneweb bu ko defee ngay xam problème yi xam nga Abdou Diouf dégg naa si lem nges naan xamutoon sax lu pëndaxu sunguf meew di jar parce que bulletin renseignement yi ñu koy jox rek ndeke duyu baax yi donc yow kay man gisuma yaa de quoi amul amul de quoi fouetter au chat mais les gens sont dans une paranoïa les gens ont tendance créer des fantômes pour te faire peur. bu defee il justifie des postes de sinécure. d'accord loolu président Macky Sall soxlaawu ko. na bàyyi télé di tàq encore tamit ñun journalistes dañu am éthique de responsabilité tamit comme ni ma la on ne peut exclure l'existence de connivence assumée entre journalistes ak politiciens. il des chroniqueurs des journalistes qui. tout le temps ne font que exécuter des mots d'ordre loolu tam il faut ñu déplorer. d'accord sur la même question ndax jàpp nga ne y a une volonté si ginnaaw dossier bi ak li ñu koy tuumaal de de le ko tuut. waaw mais loolu euh, couverture médiatique bi rek moom moo ci moom moo koy firndeel parce que tey yaakaar naa ne affaire escroquerie de francs ñu lay def à une di la revue de presse di la tës di la xamalan mm-hmm. euh, dafay poser problème. parce que man ni kii daf la yoreel xaalis euh, daf la daf la daf da nga koo lebal xaalis mm. ci beneen service mm. mais yow yaa ñëkk jubadi mm. te loolu sax amul benn garantie bu muy présenté Pape Ndiaye mi ko def parce que tey jii service bu fayee ko sax euh, bu paree femme bi mën na ñëw wëlbati ko tegaatoo ko décharge ni que yaa ngi ma yoree cinq cent mille parce que yaa ma déchargé euh, prêt donc je pense que ni loolu vraiment dafay wane que ni actuellement ñoom utiliser tuñu ay armes conventionnelles dañuy xool faiblesse su nit ñi di ko jéem a exploiter ñenn ñi ñu ngi leen tegal ay traquenard ñenn ñi ñu ngi leen di jënd ay complot parce que li ñu bëgg mooy fexe ba imposé fi la pensée unique képp ku leen di dérangé ci ay gëstu ci ay point de vue wala ci yenn comportement yi mooy loolu yëpp dafay wëlbatikuwaat delluwaat ci li ñuy naan lu fi amoon du fi amaat lu fi amoon du fi amaat parce que ñi nga xamante ne dañ doon def dinañ leen xoqatal commentaire yi nga xamante ne dañ leen jàppe woon comme incitation la haine wala à la révolte soit ñii daañu leen jox xaalis parce que essayé nañ ko ah. am na ñu bëri ñu ñu approché. ñëw ni leen mën naa la defal lii ak lii ak lii ñenn ñi accepté nañ ñeen ñi bañ accepté. moo tax ngay gis ñenn ñoo xamante ne seen point bi vue sax dafay dafay mujj dafay mujj safaano am na ñoo xamante ni aussi dañ leen di xokkatal dugal la kaso ba seen waa kër ñëw ni la lii ngay def jaru ko parce que bañ la dugalee fii ñaari nit ñetti nit fekk siw ñu la. te da nga am njaboot foog nga sàmm ko. ba ëllëg boo toogee da ngay am yenn réserve yi mais je crois que il faut il faut nit ñu xam ni euh, waruñu ragal te euh, nit kuy ragal rek da nga am looy looy reproche sa bopp tubaab moo koy wax mais il faut que euh, ñu gën continuer di wéy si liggéey pour le Sénégal intérêt exclusif du Sénégal te moytu ay intérêt particulier joxuñu kenn leçon Pape Ndiaye bu ko neexee nekk escroc man intéressé wu ma xam na moom intéressé mu xam ne li ma intéressé si moom c'est pas sa vie privée bu ñëwee di émission est-ce que mi ngi koy teg ci éthique mi ngi yemale ñëpp mi ngi def liggéeyam bi wax wala du ko def bu ko defee na wóor ba tiku di fanaan ci ay baax loolu moom la ak problème ak ak boromam bu ko mënee assumer c'est son problème man am naa lu may def en privé loo xamante ni lijjantiwuma ko donc moom vraiment euh, mii moom mii keneen na keneen ak keneen mais bu ñu demee ba politique bi léegi ñu bëgg koo réduire ci ay affaire de kii vie privée lii lay def kii privée lii lay def te alors que ñun xam nañu ministre yi fu ñuy fanaan. xam nañ député yi fu ñuy fanaan. xam nañ fi ñii di prétendre euh, mm-hmm. ci kii fu ñuy fanaan. Mm-hmm, mm-hmm. ak lan la ñuy def. ci ay mërs ci ci mërs nañu dëkk. ku leen bëggoon tey piégé tey tey tey tey tey. wallaahi di leen piéger ay pièges yu ñaaw mais duñ ko def parce que yàlla dafa bëri sax yoo xam ne gaa ngi ko daaj làq ci taatu waxande rek mais fii liñ fi xam bëri na de te loolu nañ naka yóbbu société bi terrasse yi di seen waaw nawet daaw fi lañu fekk xam nañu baar yi seen <laughs> xam nañu ko baax <laughs> mais en tout cas amoon naa mbir dalal leen ñu ñaan ñëpp Aliou Bamba daan nga tàggatoo waaw mais di di di tàggatoo di leen invité yéen ñëpp di profité ci occasion sama cérémonie dédicace bi nga xamante ni mhm. sama 5 juin incha allah euh, siège Harmattan di leen invité di invité waa Seneweb waa Sénégal ñëpp mm-hmm. di leen wax rek euh, voilà ñu ñëw euh, à de 15 heures ñu waxtaan ci Sénégal ak ci li nga xamante ni moom mooy doxalinu jamono. Mm-hmm. di la jaajëfal di rafetlu liggéey bi vraiment liggéey bi nekk na liggéey bu am solo mm-hmm. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax lépp li nga xamante ni juumte la ñu ngi koy jégalu mais leneen li nga xamante ni aussi lu rafet la nañ koy teg suñu kàddu dañ koy teg ci loxo suñu bopp subhanahu waaw jërëjëf euh, véritablement ñuy rafet lu waxtaan bi ci Seneweb di nuyuwaat euh, véritablement téléspectateurs yi wax ji moom lépp loo xam ne dafa jub rek euh, borom bi la. Uh-huh. lu ci dëng tamit xëy na ñun la wax moo yombul. Uh-huh. may remercier sama co-débatteur le chroniqueur le grand chroniqueur sëñ Pape Matar. <laughs> véritablement à chaque fois. ñuy jàng si moom bokkul bokkul si mercenaires yi. <laughs> non non non non tamit ah. moom bokkul si mbaar yi seet. non tendance non tendance générale bi sax. Uh-huh. damay wax rek mais damay général. presse sénégalaise bi chroniqueur yu bëri. moom si la bokk. donte nag euh, am na yoo xam ne nii nag comme ni ma la ko waxee sànq. waaw a xam nga toog ba si yàgg ne successeur Macky Sall Cheikh Omar Anne. vous nous vendez Cheikh Omar Anne comme successeur de Macky Sall et les gens au sérieux <laughs> parce que yow vous pouvez vous rendre coupable de connexion nébuleuse avec Cheikh Omar Anne yu mel noonu ça interroge. bon dafa waxee quoi non problème ba tey. <laughs> attendez non non de là <laughs> mais non xam dafay interroger. Mhm. ko xam nga loolu dañ ci def attention baax et puis mi toll. ba jeexalee foofu. Ah, waaw waaw non qui parle français comme euh, parle l'espagnol comme mooy ko xamul. waaw pluriel bàyyi leen jàmm tàggatool. <laughs> dégg naa sax moom mathématicien bu ay la woon. ministre ministre ministre bu xamul pluriel ak singulier. waaw tamit bu nekkee si session. nga nekkee si session ça pose problème. Mm. donc véritablement ñi ngi ñi ngi rafetlu waxtaan bi. Euh, di di di ñaan yàlla jàmm fu ma bëggoon jeexale foofu la. am na foo xam ne fa tollee médiateur la ci dëkk. bu politiciens joxe jotee ba mënatuñ juboo uh-huh. ay patron de presse mën nañ dox tànk yu juboo mais da nga fàtte Madiambal Diagne en 2011 bi naan Malick Noël Seck xaw ma dañ koy libéré je crois que am na rôle bu mu ci woon. Hmm. man yooyu dama ci dialogue bi hmm. non da ma dagg nii sax. mais boo ma mayoon une trente secondes mu nettali benn anecdote. waaw trente secondes waaw boo xam ne Abdoulatif Coulibaly def na ko ci livre am. Mhm. y avait des militaires qui s'organisaient avant 2000 pour def ay affaires. Mhm. ñu woo Abdoulatif Coulibaly jox ko information bi comme journaliste nee moo ko Babacar Touré fekk c'est des officiers supérieurs après Babacar Touré woo nu mu tuddati Idrissa Seck en tout cas Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf yëg ko ñu réglé affaire bi. parce que projet loolu il paraît que ci jour élection 2000 yi dafay am ay attentat affaire de ay attaque ñu jiñ ko Ablaye Wade après programme victoire Abdou Diouf genre de non écarté Abdou Diouf tam bon donc xam nga journaliste gis nga li nga mën a joué ci dëkk. dëgg la comme tey ñun nous sommes de la balance. Mhm. am na foo xam ne bu fa gars yi eggee ci xuloo ñu leen di jubale. dëgg la véritablement loolu la ñu ngi mhm. jégalu waat ci. xaabaabal bi merci beaucoup waaw ñu lay gërëm bu baax a baax Thierno Diop amoon naa mbégte dalal Pa Matar euh, Diallo amoon naa mbégte loolu dalal leen tey ji jour férié mais ngeen def déplacement bi ñu leen siy sant bu baax a baax dina si gërëm gërëm Oumar Samb mi jàpp si liggéey bi ba mu yem gërëm leen yéen doon euh, teewlu euh, dig leen àla tolluwaay war a dol war a dalal professeur Ngouda Mboup jaa ngeen jëf ba suba allah